لو عاش فاز به القط فوزا عظيما غير منسى سيدي حاج مالنا وصلي يا يا إلهي واجزينا أبدا أنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله القاتل لما سبق الناس من قبل حق قتله والتناسيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام في البشر وسلام على المرسلين صلاة الفاتحة yàlla na yàlla nangu في العالمين وحق من نبأ fii yow bi badrin xat atal kamalaa ikun yoo xam ni min inda rabbika xaatal aadaa wa farjaaka yawma ika mankatan والنصر في الأحزاب قد وافاك هود

الذي أسرى والله يا ياسين مثلك يكون في العالمين وحكم النبات صلي

loolu suñu xam mooy ñëw. so pay pay pay pay ñu ngi leen di mos a ndokkeel ci koor gi waaw na mu ñu mënee ci di kenn du mën a kenn la ak juróom-ñaar yëpp moom la moom muy soxna ak jóg ñu def fii ci wund fa tabarakallahu moom soxna umu xayri kan sarab waaye ki nga xam ne mooy xarit jóg membre ci biir AFCA mu am ci taxawaay bu ràññeeku boo xam ni ñun ñëpp ñoo koy jooy ci taxawaayam ci détermination bu mu am ci jël alalam di ko def ci gën moo tax demam bi dañuy jàpp ne yàlla moo ko tëralee noonu waaye ku ko xam xam ne bu ñu doon daw cent mën naa wax ne quatre-vingt-dix yi yëpp moom la ko kon nga ñaan sëriñ bi rek nga jox defal ko dox. yaa ngi sëriñ Habib mu xëy di kan. sëriñ bi dana kenn ku nekk nga jàng faatihatul kitaab ñetti sallallahu ala muhammadin fukki qul wallahu ahad ak benn. benn bu ci nekk mu ànd ak bismillahi rahmani rahim ñu tëjee ko salaatul faatihi bismillah ñaana leen yàlla. ne yàlla jottili seen yool bi ñu jàng yàlla na leen ko yàlla jotti ci barke Sayyiduna Muhammad am nañ ci yaakaar dañu dem booy waaj ci ñaan naan soxna ak umul xayri seetu Muhammad bu Chérif Hamza yëg ndax seetu Seydina Tijaani yëg si am nañ yaakaar ci ñaan bi bismillah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 kon kàddu yi ma jiital léegi kàddu gi nga xam ne mooy mag groupe muy Pape Sarr moom laa ko waxe ñu yóbbaale ñëpp bu ko defee ñuy jéggulu woykat yi ñu jéggulu leen ndax li ñu ne ñu ngi ko jëlee ci xelal fu mu toll dina ñu demeeku fan ngeen kon loolu nee na la mu waxoon ca commencement xet naa engagé bu tawet léegi nag boo ko soxlaa bare na ah kon nga ñaanal ñu yàlla yàlla gën ko sutura yàlla gën ko aar li mu yéene kër maamam boo ko xam yàlla defal ko. Serigne Habib yéen ñu sàpp ci yow ñaan te ñaanal te nijaay xam naa jóguloo ci sax waaye am na koo xam ne bu la yàlla booleeg moom mu sëgil mu am benn foy dund. bu mu teg ñëpp gis loolu kon kooku da ngay ñaan yàlla yàggal ko fi may am ko may ko wér lu tax mooy ñii ci gannaaw ñëpp mooy la ñoom ñëpp ñëpp mënuñ ñëw waaye ñii ñoo leen fi teew lu tax mooy dafa ñëw rek ne ñëpp taay leen ñu liggéey ñoom ñëpp moom la ko yàlla defal ko sëñ Bamba taxaw na daawiya maamam boobu fa tubb léegi daal xam taxaw na lawtu maamam boobu fa tubb daal xam ne kon nañ ko ñaanal yàlla bu yàgg nañ ko ñaanal bu wér ndax bu wéree muy njëriñu kaneen waaye bu yé wéree muy njëriñu Kaolack kon yooyu kàddu moom lañ doon ubbee li ci des mooy dañ koy bàyyee. ndax am na yoo xam ne buñ di dugg ci détail te temps bi dafa xat te sëriñ bi dafa am ñu mosal keroog bi ñu àndee ci gàmmu amal na nit yéen maak imam Diagne fii loola nag moom lañ soxlawaat ndax doya bi moom mu dàqu tey nag moom dama wax ne loolu bu ñëwoon foofa dama bëgg fii moom bu yeboo bu ñuy dogee ci biir kër gi sax ñu dogee loolu nag moom lañ lay sant si wasalaamaaleykum wa rahmatullah خليفة أمام الشيخ والمختار يا في منبر ومعصية فجان دينا أيدا نمتني ولي جوانا تسولو يا تاريكي فما تسولو جوانا تسولو يا تاريكي يا خجاك وجوانا ne la rasuloo yaakaar kenn ku ne gën alifatu wax nañ ko cheikh wala muxtaar yaa fi dimbal si yaay fa jaar dina ay daanam sa ñeebal dañu tuut na débat ak am na ay moom dañu tuut na débat ak am na ay moom dañu tuut ko bil am daay ba ka yar yoo daan ci gaangi te tës picc moo di mani ko jar mi na la fasini laa ba ke mu muy meq sa mu muy la rompet li war mu leen ko xiinal jëpp leen way وبشير المصطفى إلى السفارة بور يلا ماينا في بيرو خمني كان أمكم ولا بولنا يدي بنا خل يا نخير اليوم إلى كلمة يفعل أن ألقي كلمات بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد الحمد لله الذي بجلالته وعزته تتم الصالحات الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين suma xada ajala wa ajala musamman innahu suma antum tamtaru ndax huwa alladi yalamu sirrakum wa jahrakum wa yalamu ma taksibu wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya ba'd huwa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashaabihi xulafaa'i raashidiin ومن اهتدى بهديهم إلى يوم القيامة يا أحمد التجاني يا نور القلوب أما ترى ما نحن فيه من القلوب أما ترى ضيما الذي أصاب وأنت الغرب لم تزل مجابا بك توصلنا إلى ربنا وبكما لربنا العالم العاجل العاجل بالعبادة يا من له كل العلا وارثا rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli baral azza wa hayyikum bi tahiyatin islamiyatin mubarakah qaailina lakum salaamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew di nuyu suñu ya ñun ñëpp di sëriñ xam ko nuyu ci turu jullit yëpp di ci teew tabaarakallaahu ndax ci maamam dañu yaakaare am ci maamam dañu yaakaare am dafa am téere bu ñu bind دب الشرب الصافي من كرم الكافي asan dee ni ku kenn muur bu ñu ko muuree rek kenn dootul am taalibi ci Maroc daf sur chemin Tijaan jafe na nag am téere mais eh, boo bëggee xam Cheikh dëgg foofu ngay dem li ci des mooy mashahid léeg-léeg lu bëgg ci wax sant si sa ñi may tere ngir li leen ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy waxoon léegi la defee ñu tënk ko rek waaw ah. na ko gone tabaarakalla tabaarakallaahu di beral nag nuyoo ak cant Serigne Habib Iba Ka ko ñaanal moom tamit waaye suñu mag yi fi yegg si léegi lii ñu yor ñoo ko moom waaye dañ ñu ko ko dégg ko defee rek ñu nuyu bàkk yi ci des yëpp di nuyu soxna sufi ñu ngi ci biir toog ak mam Fatou Diop bu yëddu yaa ngi ñaan mam Fatou mooma yar na mam Fatou mooma yar di nuyu sang yi ci des soxna Ndeye Marème soxna Aminta soxna Ndeye Mariam soxna Fatou Kane yegg si na léegi soxna Farid Si soxna Fatou Tall tabarakallahu ñooñu ñëpp maam Abdou ak seeni rakk yi toog muy Pape Amadou ñi représenté fii IGLES famille bi yëpp kenn mënul ñëpp ñëw daf rek mooy xalaat am cérémonie na ñëpp ñëw waaw daf rek koy xalaat su ko defee rek tabarakallahu macha allah le doyen Alaaji Cissé Jinge bayitam yu am solo yooyu fa kamaalu mat fi mat fatun fi kaamili yaa talaatal badri munir kaamili أنت الذي قد كنت عمية العادي ولقد رجعنا من عطايا ربنا بك ما نروم لآجل ولا آجل وحججت بيت الله لك في خلالكم فزت بطاعي وحججت بيت الله جل جلاله وأتيت بالفتح الكبير شاني ولقد ظفرته وحيدا بيننا فكأن ظهر الأرض إن النياشر التي ألقتها شهدت بأنك حزت كل الفضائل فعناية أيضا الحسود ولا لسان المجادلة فلأنت يا عبد الحميد إمام دائرة الكمال فسرت صح أين الوسائل ونقول من لمن حاكيها وحاي كنوزها لا سائل جود كلواح من يم بين ياكار بين غارانتي لولو سوني بريوريتي waaye suñu priorité du toog naan Seydi Hadj Malick wala laaj Abdou Kaddu Taalib si Hadj wala yooyu yooyu du suñu priorité waaw suñu priorité weesu nañu ko lettre ngi nii moo ak Alaaji Abdou Hamid Kan bind ko Serigne Babacar ni ko ni ko Serigne Babacar ci bi mu demee màgg ni ko dama def xatul ilaahi loo xam ni seeni borom laajoon leen ko waaye yaa ko tëfal sa bopp ba ñu jox la ñu nangul ko ko jox ko mbubu kaaba gi mu leen te booba nit yàlla yu bari yàlla baaxewu leen xatul ilaahi yu mu baaxaleen ko ñu mun leen ko mu ni si Babacar bu may ñëwee ñu def ko ci raw di si xayma. ba ne lii yëpp rek waaye ñu résumé ko rek loolu. waaw si Habib nee na nañ ko sàmm. li ci des dama gis ci naaj bi. benn nit bu wax ci net bi ni si ay maru fóotu yu mi ngi am damaa indiwaale wu lepp parce que bu ma ko indee rek ñu àpp si xaye maru fóotu yu mi ngi diggante Màkka ak Medina ñu defal ko diggante Màkka ak Medina baytul aziz léeg-léeg mu ñëw jóge Màkka ñëw Medina dem fa fukki juróom léeg mu jóge Medina ñëw Màkka def fa fukki juróom bi nga ànd juróom benn taalib benn égyptien ak ñaari taalibu Fuuta Tooro ak benn ak ñetti taalibu Fuuta Jallo yële si xayma di Fuuta Jallo wax naa ko bi ma sëriñ ak yabalee ci cérémonie ñoom Thierno Bachir Tall dañuy def liberté 6 parce que si ñaata fu daan wax ne bu dee tukkulóor yi na sëñ Babacar dem. man dem wax laa fa keroog ci kanamu Thierno Bachir Tall ñu leen Thierno Bachir a ngi nii xam ne li may wax. nit booy wax dara da ngay indi dalil dalil yu wóor la am ci moom fu mu nekk. Chérif bi ko bind nee na moom daje na ak Cheikh Omar ba moom moom akolaatante ne ko. lettre baa ngi man photocopie naa ko jox ko suñu am. ki dëju ba Ablaye Seck. bu Seydou si. damaa teel a. su ko defee Abdallahi ñëw na. moo bind téere liggéey ba la traité. ñu ngi dell'Aia du cadre banquier ñi dafay dellu jàngi jàng ba ci yàgg mu ne dafay bind kaamilu alquran mu dellu dem ca àll un la fa def bàyyi ay doomam fii njabootam bind kaamil bi dellu gannaaw suba lañ koy dédicace xaw xulafaa yi ci Sénégal kenn ku ci nekk nag jox na la jikko ñu ko président ci laa bokk gannaaw suba parce que li ma laata def ci mën na jëkk jaar li ma naa ko ñaanal ma ñaanal ko yàlla def ci sutura mu réussir ko tabarakallahu macha allahu li ci des nag loolu ñu wax sooga tey mooy weeru koor la nekk يا أيها الذين آمنوا اتقوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج قل بلن خروا ملة عليكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس fa aqimu salaata wa atu zakaata wa atasimu billahi wa mawla kon fa niamal mawla wa niamal nasir kullu xayrin ala xudurikum kulla amin wa antum bi alfi xayrin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والصلاة والسلام على رسول سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وما تسليما كان على الحديث آل الحب وقد حاجت وقد حاجت إلى الطالب وبعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تبارك الله يا عليك Thank you. ñëw ñu ñëwaat ci bisu koor fekk si fii suñu waajuru bopp suñu kilifa yàlla ci suuf maamu bopp suñu lépp bopp. radiyallahu taala alxuraan yi itam ci ponk xam-xam waaye jëm ko ci itam qualité bu ko yàlla defar mu mën ah et daay wax ni ñi sant si ak ñi sant ka ñu ci la biir bariwul ndax dañoo amee tempérament mais moom yàlla defal na ko si loolu lu jafe mooy dafa laa biir pourtant may wax ne eh collaborer moom xanaa ku xamul li xam waaye ku xam lu xew daal ci sawar loolu lay kon nu feddali diggante ñaanal ko yàlla sàkku ci moom ñaari seen ñu ko sëriñ Ousmane waxe léegi ah ñu ñëw itam ànd ak muy xaj Malick Cissé xaw naa ko ñëwoon ci sax ci gi ay xale bi ni man nee na moo tax mu ci ñëw fekke si jataay ñu sant bo ñaanal ko yàlla yàlla gën ko may wér gën ko kattanal ah mu ngi ubbi njaboot gi di leen gunge di ànd ak rakku boppam xaj sàmm xam naa gis naa àndu mbokk bu tey ba tey waaye ñoom tabaarakallah seen ànd tey na daa tax dañu di faral di cité ci référence ci wàllu ni ñu doxalee seen mbokkoo mbokkoo famille itam ci suñu cousin wu bopp xam naa moom itam ponkal bi ci ñun di doom ci suñu maam ya góor gi Ahmed Yahya ah mu bokk ci muqaddama fi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala bokk ci ñi amee passion ci suñu maam yi ndax bi ñu leen di miin boo xool juróom-benn sax xamuñu te xaar seen xaal ci nga doon natte seen cër loolu laaj يعطى الكتاب عندهم بالمغرب يمشى الصراط بالعشاء المحدد ah su ma defee loolu la ñu wax tabaraka Allah ah ñu ngi ko ziar ko Euh, ak nuyu kilifa yu baax yi ñu fekk yëpp jamono koor la ñu nekk te itam am na ñu ñëw jëm fu xaw sori tuuti suñuy jaamu ak suñuy may lu kàttan ni ko fekke ak yu bare bare bare ñuy gën a yëwal di gën a tey di gën a barke ci dara gàmm la waxtaanu gàmm la yaa xam ne daal bari waaye nag suñu jotaay bi tey dama gën a dellu ci xalaat yaa xam bëri di doon tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggoo ci li am Quran bàyyi wax ko ci cëram tàggu ko ci li ko mag way ci xolu taalibe ak pusof waaye nag tey ni ñu tànne ah xam naa ci xalaat la gën a dem ñaan nañu bokk ko yéen jataay bi laajee lu noppee ñu joxe ñu def échange baax na su ko laajee li tam ñu bàyyi bàyyi leen bu ci biir mbir du Seydi Hadji Malick radiyallahu taala amma jamono yi kuy magal yeetu naari biir am dafa fekk bi ko Maodo yi bindee mu atteindre maturité intellectuelle cëru yàlla mët la te mille neuf cent treize neuf ans la ci teg incha am na fi mu dem mu tax ñu ko bind xelal ñor na damay wax ne ku ñeemewul on on xuus ci kifaayatu parce que daf argument ba taxoon nag mu bëggoon ñu dugg ci thème provocation yi tuuti parce que dafa waxoon ni ndokk ba baneen téere wàccul Maodo ndokk ba baneen téere wàccul asamaan nee na su amoon ne danaa wax ci alquran waxu ko ci an nasara waxu ko ci yahud moom la moo ko wax. parce que nee nañ jullit yi dañ mujj sàggan waaw jullit yi dañ mujj sàggan ah, ah. la ci Imaam Junayd di waxoon rek ah, ah. Imaam Junayd comme moom moo nekk parrain spirituel tariqa yi ah mais comme nag dem. marché di dugal boppam xam naa am ku koy gis te dégg ni cëru yàlla toll te mu gis ko mu ànd ak modeste bi lu ànd ak ah c'est ku mu romb ma mu mu romb ma mu romb mu dee mu romb ma ni ko waxale ilay ko njoboktal la ñëpp di yegg yegg na wante nag mbokk bi moom mënul dégg lu dul bu fekk ko fa muy jëlee ravitaillement rek mu promé ko ni ko yaa cheikh man yaa cheikh man nihaaya ilal bidaaya waaw yanaaw la ilal bidaaya loolu ko yaa Cheikh ku yegg ci sa borom nuñ koy xamee mun ko ah xanaa nga jàpp ni day doog a tàmbalee ah mooy li nga ci kifaayatu laa nga jël maa ngi jiite Seydou Hadj Malick di ko wax ni kii tàqala baaxir ak baatin mooy ki yegg ki baatinam ci kifaayatu laa baaxir ak baatin dafa fekk baatinam mëtagul mais su mëtee dootu leen mën a dàqale waaw benn benn réalité day doon su ko defee nu lu ñàkk xanaa ci yeneen comme dañ ma joxoon ci fi àdduna toll tabax jàmm jafe jafe conflit bu tànk ba fay beneen tàkk wala bu tàkk te nature conflit yi dafa bari yii ci laxasaat yi la dem ah yii ci problème géopolitique la dem yii ci problème mu bëri te dafay yee fitna ah yii ci ci média muy la xew Ukraine te boobu fi mu amee foogoon nañ ni Europe tëral nañu ay mécanisme de régulation ak ay institution yu nga lu ay rëy rëy rëy balaa yegg fenn fi daanu xam fu ñu koy jaar togale ko waxoon nañ ni Europe comme ndax seen instance ak institution d' waaye gis nga compliqué bi muy ñëw montagne suñu sàng la dafa bi ci jataay yàllaay ju amul jotam sax peut-être war a dem bi yett yeggale ay yitteem balaa timis di jot waaye ko képp ku dareet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amel nañ la hadiya dañu doon ñaan ñu toog jataay ku fi am lu tànneefet tey ñun ñaan nga yéene ko ko ñu dajale ko def ko hadiya maamam ñaan yàlla gën ko sàmm sàmm yi mu bokkal te yàlla gën a saxal wëllëre kër maamam ak waa kër Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu kon nag lu waaye am rek ñu boole ko dajale da ko yi ci moom incha allah. ñu tudd jàmm te jàmm moom la matale ci kaw. un monde en quête d'actualité ba àdduna soso ba léegi ku koy ñaan jàmm waaye balaa bëccëg bee sori ci kër ci gaaru waale wax ju sew jeeg dàq ganaar wax soxla ah léeg-léeg nga ni ci bureau ngay liggéey dem ko seq ko koo xam da ngay yëg ni sa présence moom koy te boo ko laajoon kii bi la jotalee moom du la ko mën wax. gis ngeen lii moo tax rek ah yëf yi du te dañu wax ne waay jamaaleen ba ñay def ko. ñaay dafa fëkk jamaale ba ñu daw ñu ko sa jamaale ba de ñaay fëkk na ko muy jooy muy jooy di jooy ba yëkk ñu ko yow daal yaa kii li mu la woon ca ndaw te lii daal ko nga di ko jooy mu ne ah dama xam ni dana rëcc rek <laughs> dama xam ni dana rëcc rek dana ko lu tax mu ah ñu ne ñaay ni mu rëyee man ñàkk état d'esprit bi nit ñi toll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 المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله dama xëy suba tey bi may laajte sama kàddu ñu tudd ma sama benn jigéen dama leen moo la soxla. te dama ne ah teel na dem waaye comme njaboot la ah xanaa ñu wax ko mu yegg si. waaye léegi nag ma dugg si kanam muy triste lool ma nuyoo moom laaj ko lan la woon mu ne ma sama wujj moo nangu sama jëkkër. sama wujji maanaam bu sama jëkkër sëñ Babacar Si li ko danga bëgg ma defaree ba déedéet nga bëgg ma defaree ko danga bëgg ma woo sa borom kër moom man ma déedéet quoi loo ci bëgg a loolu baax naa nga am loo teewaay. yàlla may leen lu ba yëg ni lu mu bëgg mooy ku ko rawee mu cëpp. ma ne ko loolu borom kër jaru ko. lii ko aayam ba ma yàq lu mu ñu naan mu tax mu dem. فدفعه جهنم خالدا فيها yàlla nee na ku rey bakkan boo ko jotee boo dee saware ko ci dañ ko dëggoo ko duggee dootoo ko génn dañ ko tee nga bàyyi ma boo sëmëram kër rek nga waxtaan seet bi leen defal isaasi la bakkan ma di weeru koor nee na ma yéene ma dund dama yéene la nga dund ba say sëtaat di la yem waaye nga ku ma yéene ma dee nee na ma yéene la nga dee ba booy dee sax nga fan nga fan daa lay nga dee ba booy dee nga fan El Hadj Abdoul Aziz ne ko àndeeg déy na di ci gën a métti te xam ngeen ni àndeeg déy lii de mooy ku añ ànd mooy ku reer monsieur El Hadj Abdoul Aziz déedéet ànd bi ci gën a métti mu ne ah ànd moom dafa métti ndax doo gis koo waxal effet bi yëpp dañ ci ko def. walaay bu dee dañ ne sax daa gis koo wax ah ñun ak saa nga la lam ba ci sa poche fekk fa ñaar fukki yu ma lay jënd ñaari pax yi ci am nga dem jënd. walaay tànde métti li nga xeetu defante yooyu moom laay tuddee léeg-léeg man damay dindi ay ku ku bëgg plume la si may dimbale la moom. moom laa tuddee des petites méchancetés qui yooyu nga mënu ko topp dañuy dem ba kenn su ko defee sunu dajee takkante sax ku ne takku sama mu ñu mujj daba daba rek fatax te boobu jamia waqulu mu shatta ku ñu dajee ku ne gërëm sa morom waaye yàlla xam na ne xol yi ànduñu te état d'esprit boobu kenn mënu ci tabax jàmm état d'esprit moo tax may ci suñu kilifa yi ñuy répété li arab yi di wax daan sooy waxtu sa noon benn yoon doy na daan sooy waxtu sa xarit احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة léegi parce que moom boo koy bloqué benn yoon lay doon du yegg si ci yow waaye li nga xam ne yow ñooy bokk laaxu yoor yoor ah ñuy dee te secret mu ngi koy fekk fa ñuy xalaat yi ñu bëgg a ñoŋale taxawaay mu ngi mais kooku bu wëlbati ko doon noonu foo jëm ah xam nga Seydina Ali radiyallahu taala moom xamul woon ni kii yeetal waa kër maanaam kii yeetal waa kër ba ñu nelaw Seydina Ali xamul woon ni maanaam lu dul lu dul keroog dóoree jaas la gàllankoor si bopp moom magaan yaakaar naa te moo njëkk a génn saa xam ne fekk sa loxoom ya ca kaw tàng tàng yi ñu woon si ñu koy si ñu gaasee naa ñu ba teel a yaa xar ba teel ngay tàng ما أراد بها إلا رضوان maa ngi gërëm dóor bi dóor bi laaj bi mu bëggoon foofu te ki ko def jublu ci lu dul am vraiment Hatta Imam Tabari dafa naan doogal ba ci bëccëg wax ni yaa baax ba ما أرادتها إلا ليهدم من دناش دنيانا ولو إلا ليهدم للإنسان أركانا Parce qu'il a amené le topor qui est arcane sur l'islam. Le sacre de père. Le mot de la vie yére yi moo moo leen koy wute ndax ravitaillement moo koy toppatoo au fond ndax gis nga ngeen di jàng siira histoire taarix réew te léegi ngeen yegg ci loo xam ne sa xol door waxtaan li mu yor tafsir maam tafsir maam am na lu xaw ci ci ci bakkaar yi soxla ku am teggin la moo tax ba ñu ko kilifa nettalee dafa wax noonu bu ngeen di jëflante bul nangu mu wutal la yow bëreel ba wutal ko bés waaw nee noonu ngeen di jëflante bëriwul ba yow bu wutal bu bés te bul bàyyi moom bu teel di bés parce que noonu bu la wutalee bés rek jekku la te ki la te amul jikko la mu def leen teg yow ci naqaral sa jabar ay mucc moo tax ñu maam Abdoulaye wu ñu ma te yàlla yokk leer ba muy wér yi ci baat yi ñu ngi ay fan yii ñu jógee Kajoor parce que yéen ñëw pour dégg leen di Lat Joor mu ngi ñor fekk si ko fekk si Maam Anta Sall fekk si tabarakallah eh, sunu maam bu amoon melu gàtt rek leen sunu maam Cheikh Ousseyn mais bi ñu ko yëgee moom maam moom daf lay ñu ngi leen bàyyi ñu yegg si parce que yonent bi man moom Moussa ak sa biir njaboot. te demee lay gaa l'ennemi irréductible na dul ko dégg su ko defee loolu parenthèse parce que itam li xew fa de seetal espèce su xal yi ñuy di boyal te bu ñu ko bàyyee mu yaatu yow doo ko tal sa kër bi du ko Senghor dafa daan wax ni les Sénégalais sont añaan de <laughs> Senghor wala am boole tubaab ak wala les Sénégalais sont añaan. wax na dëgg. dafa am ci suuf wax ci suuf après dégg naa Serigne Cheikh ci waxtaan mu ni fii lu yàq ñaata ko yàq. waxteef moo diw fu mu jëlee otoom moo diw nu mu tabaxee këram gi moo diw li mu sol pour ko jële di ko wax di ko wax di ko wax ba di la perturber dootoo nelaw dootoo nelaw doo ko gisee sa xol dootu ko supporté nga ne naa ci sànq pexe ah am na kuñ ma waxoon de nee nañ mën na fas de nee nañ mën na bind de nee nañ mën na mën na. ah nee mën na gas suul de. nee na dem di ko bindal ba diw mi bu mu ko mënati bu mu ko amati bu mu ko jekkooti waaw. bu defee loolu moo fi nekk. nee ruuma kóolute amu fi. te dañu ko miine te dañu ko miine pollution dañu ko miine bu ko defee ñu di ci bàyyi xel tuuti tuuti moo gën parce que defante bu yàggee rek pexe bari bu pexe baree rek ba nit ñuy te àdduna def ñàkk jàmm gi fi am yan ñoo ko sax ñu ngi dégg conflit politique yeeg dem ba jur jàmmaarlo yiñ wax bari na waaye gis nga àdduna bi crise morale bi mu fësal ci ñaari xew-xew guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale lafɗoje ñaɓɓiti ngandal ñaɓɓotite alal rayo conflit conflit masul masul masul fagagal luddol noon xam nga sooy jàng histoire jiitu ñu ngi la tuddee euh, le le le prince Gengis Khan nga xam ne moo islamisé euh, euh, une partie de l'Asie la Chine, l'Inde yi bu ca dëkku xeer yu wow moom moo leen ci lislam mais benn benn lenn rek la daan wane ses victoires mooy ses cinquante mille cas ses cinquante mille cas mais loolu matul asaka sax ci lu ñu rey ci ñaari guerre yi te suñu borom xam naa war nañ daal suñu dugg ñu di ko ci bàyyi waale xel xam nga ñaari guerre yi ñu ko fësal mooy dem nañ ba ñi ko sumb amatuñu xalaat amatuñu kattan amatuñu gis-gis bu ñu jeexalee ñaari guerre yi dañu mujj di ci seen colonie yi nitu yàlla ya fa nekk ñu di leen wax ñu ñaanal leen ndax yàlla fay fay fay xeex yàlla fay seen Hajj ci geeru Kaproon le 18 ñoom bi ñu demee ba jaaxle ci te amatuñu ci solution dañu doon ko sollicité nit ñi ñu am ci te taxul ñu gis buñ ci solution di nga la mu ci doon liggéey moom dëkk bii lañ ko sant Ka mu dem def ko ci bàmmeelu Yonent bi sallallahu alayhi wante rek ñoom am nañu avantage ñoom mag ñoom ñu xam nga Cheikh El Hadj Omar radiyallahu taala anhu ay atam mosul a daanu ah ci tegtal yi ñu mujj joxe nag wax nañ ni song bi ñu ko mujj song boobu mu ngi dugg ci grotte te bëggul noonu yi fekk ko fa. finalement loolu la mu mujj tax noonu ñuy jot ci moom. ah d'accord. mais nag seen mission ñoom ko seen bopp. yàlla moo leen koy sant te moom la. ku dem ba boo feebaree sax li koy faj yonent moo koy wax. cheikh bu ko wax yonent yoon pour wut point de retraite. fu mu dellu làmp fa yëggale mu li mu bëgg a mottali di mu njëkk tànn moo delluwaat dëkkuñ cosaanam ut a tox bi ñu ko defee ñu ni yonent sa xeet tamit wax mu ni dafa bëgg a installé bi ut a jàll ci Guinée ñu defal ko istixaara wax ko yonent bi ne ko nee na yonent bi nee na dañuy ragal sellite soxla boo demee foofu dox mu dem yeneen jamono mu ngi dafa bëgg dem Nigéria mu montale ñu defal ko istixaara wax ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ma dafa bari ay nii mu wóoree maaka nag dama daal di jotul lu ci moom parce que man damay wax. feder bu dencaloon na Cheikh El Hadj Omar benn manière. ku fii lañ ko suul dana ko suuli. ndax li la koy wax. Ahmadou Cheikh te dañu bàyyi ba Ahmadou Cheikh ku tukki. secret yi si Cheikh. Hadj Omar maam yi doon def trésorier yi parce que Cheikh Hadj Omar alal ji mu jihaate kon la ko jëlee jot xam parce que wax nañu gis bu dee daan na ministère kii disposé wu micro yi ah ministère kii micro yi disposé wu waaw ah, xam nga ci këram bis bu ne juróomi téeméeri ndax di ko ay nit ñu di ko dundee mais fan la ko jëlee ñoom tubaab bi mënuñu ko xam dem nañ ba defee ni sax lu mystique moo ko ko may parce que ku dem ba dajale lu lu mat téeméeri gaal yu def ay or fan la ko jëlee xamuñu ko ah boole ci xam-xam ba seen gaal. ak njàmbaar la njàmbaar la boo tax Serigne Cheikh ba dem seeti Thierno Mountaga Tall Tall bu Louga dem nee na jamono mbuuya la dana bi ma yegsee mu laaj ma naka yoon mi ma ne ko ah, ah tàng rek ma ah, bu ko kenn ma ko kenn dégg mu ni ma nga sa maam Cheikh El Hadj Omar na benn mbooye bu gën a metti bii muy jamono koor mu takk fukki junniy fas di tàmbali xale ko moo tax rek eh, bu la amee si foofu di boo tàngaay rek ci ci ci ci suñuy dox mission rek nanga ko sant yàlla waaye gis nga deuxième guerre bi ak première guerre bi ñu tedd ñi ñu tedd ñi maamu ñu tedd ñii la ñu mujj ñaan ñu dem dem ci ci bàmmeel yeneen ci na ko woy ba waaye nag Cheikh Mouha Diomaye borom secret la woon te wax nañ ni secret yi jihaadam yëpp ñu ngi ko dëkkoon ci ulama yu naaran bil harbi عندما أمكننا أن يحرق أبطالنا leneen am na ñoo xam ni daanaka lu seen kattan bare bare bu ñu gënu tànnee ay balaa mu ma fay. ndax ci temps bi mu bi mu jihaat lu nga xamante ne ni ci siècle li xeex na ko te amu ko ah su ko question bi ñuy njëkk mooy est que conflit armé songo ci xare l'islam cautionné la ko wala cautionné la ko ñu ne ah kay mais ci kaw ñu tooñ la nga xam ni soo bu ñu dalee sa kaw gaañ la nga nekk sur la vie de conflit moo tax bi muy wax yonent bi ni ko am nga sañ-sañ ci ci songanteeg sa noon yi waaye duulahum maxtaxoon aqul min quwa la ko wax famin dibaatil xayr famin dibaatil xayr tuhibbuuna bihi aduwa allah wa aduwakum aduwa allah la wax wa aduwakum mooy noonu yàlla mooy terroriser sooy axsale sooy marmale ànd leen noonu yàlla bi waaw te comme yow buñ taxawee sa kanam lu ñu ne sa borom dootoo ko mën a dem jàppe ko itam sa noonu moo tax sur la défense yi nan la leen jullit mu mu mu songante noonu yàlla rek di dox digganteem ak boromam te yàlla dëgg ci yonent bi jullit yi di leen te ngeen bàyyi xel ni ëllëg itam ëllëg itam ñu ngi woon bu ñu dem ci taxaw pour dox seen digganteeg seen borom pour dox seen digganteeg seen ngëm. donc euh, yonent bi ba ñu ko laaj mais jullit seen soor naka lay mën a dem wala sukul du am an tadaa aleykum ma tadaa akadami la ko fatiha et pourtant booba am nañu armée am nañu kilifa am nañu détermination da nga leen di julli leen da ngeen bàyyi xel ni ku amee kattanu ngànnaay ku amee kattanu alal ku amee kattanu xel maanaam di ngeen financé bu ñu ko ñooñu daañu dajaloo song ko leen. nee na nit ki ci xiif tànkal ñu fi bu gis bagaar bu def ñaar. nee na amul songeen dem ba kenn wala ko seen maam yi booru xaal lañ leen di songe kon nag oncle armé ci réalité wu doxu adduna ci la bokk muuruloo ci dara wante nag bu dee da nga tënku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah sur la défensive rek te nga bu ñu daan dem jihaad lan la leen ci bu leen ma rayal jigéen bu leen ma rayal màkka bu leen ma rayal lii bu leen ma tàllal doomu jàmbur bu leen ma tàllal jiwu jàmbur def ko daan wax bu leen ma rayal niir lâcheté bu leen ma reyal màggat laxte bu leen ma taalal toolu jàmbur laxte bu leen ma lakkal juru jàmbur laxte ne ba découragé xam ni mission bi ko yàlla sant xeet yi mu tasee seen ngëmadi ak seen seen alkande yegg na ku mu ko wóor kenn mënu leen dara tax wax yàlla ne ko nag aaraanal rek mooy condition bi yàlla nag da ko ah kon xaw nga waajal bëgg man ñi ma fa am mu mucc ay waajal nga jël gaal ci ñoom am nga yóbbu moom moom foogoon na ni bu paree waa bi ah yi ne bi ah yi naa woo wax yi naa ko suñu borom hmm? ko maa lay wax ñooñu defaree gaal gi maa lay wax itam ku sooy dugg maa lay wax itam ce point là waaw ah, waaye jullit yi bu ñuy dem ci jihaad ah, foogoon nañ ni noo koy tëralee seen bopp te da ci war a aju yàlla moo leen di wax tàmbale leen ci yam leen ci moo tax dañ ci tollu jamono nekk ci fitna fitna politique xëy na di def manifestation songo soldaar yi mais kilifa def lu wax lu yéeme nee na bu leen di gaaw ci di yóbbu njaboot ci ci di yóbbu njaboot ko defee su ca lor mu ni yàlla dana xasa seen la ngeen doon def lan la leen ci seen bakkan def la ak lan ci seen ngëm def loo parce que suñu borom itam tool yi moom laay jihaadal rek lu ma neex dóor rek ku ma neex yegg moom li ci sa bakkan moom bu ko jël waaye li ci sa dëgg dafa ànd ak moom dana ko jël te la ko boppam. et beneen bi ci des ñu posé beneen aaya bu yàlla indi ci alquran ñuy laaj est-ce que raison la pour que ñu jëfandikoo violence physique ñoo xam ni donte sax nee na mu gën nañu waaye yàlla nee na baaj ko ci ñu mu doyloo seen kër ba tax mu wax ko yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waghlid alayhim wa ma'waahum jahannamu wa bi'sal masiir mu di ko combattre météo comparateur mais hypocrite mais question bi ñuy laaj mooy est-ce que physiquement rek lay doon wala dañuy seet yeneen moyens yu ñu ñu ñu ñu taxawal ba ba ba ba di leen empêcher seen seen pexe yi ñu bëgg a wéyal ñu wéyal ko et Cheikh Oumar Mohamed moom li mu waxoon ne moom il faut les éliminer donc loolu la wax ah def na ñaari yëpp. bu tontoroon ak njiitu droit de l'homme yi coow dana bari bu njëkk bi mooy su jihaad masaana am dangay wax ni ñi nekk ci penc bi te amaluñu seen bopp njëriñ parce que ñu yéene jariñ penc bi parce que ñu yéene jariñ ci seen famille mu ne bu jihaad amee nañ leen jiital dem leen cher encore li parce que ñu dem ci jihaad jariñ njuumte jiw bi yàgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais boo gën a ëpp ci ñoom ñu bàyyi leen ñu sànq ci denc bi. bi ci des gis ne bi muy def jihaad xam na li ëpp ci kilifa diine ya mu doon tase seen diine seen làmmiñ moo ko amee te seen gëm am nga lu ko moo tax li mu rey ci ñu gëm yàlla ñu ni jullit li mu rey ci ay iliman moo indi ci li mu rey ci ñu ñu ñu doon woon jullit parce que moom def ni hypocrite yi buñ leen bàyyi ñu am fu mu taxaw il faut les éliminer systématiquement te nee na dafa am benn kàddu bu gàtt bu leen wute loolu nee na yu haddamu imaana wa tub naa message nee na dañuy màbb pas-pas wëlbati ko tabax juma waaw nee na kilifa diine yi nga xam ni seen diine ngëm yenn nga ko wala seen ngëm seen lambi ya ko amee mais nee na nee na dañuy ba màgg ba su dund bi bu ñu ko sax juma ah ma tax dama daal di wax ñu wax déglu ñu maanaam loolu maa ma sàcc de de d'éliminer systématiquement mais nag mag na xalaat parce que xam nga euh, euh, alxuraan ñi ñu tuddee munaafiqun ñu ngi doon liggéey système système te système bi xam nga ci nu mu tënkuwoon tënkuwoon li ñuy wax des informations yonent bi dayu waaw loolu ne fii ci réew mi sax monsieur Pandor wax nañ ni bokk na ci un peu yi yi xaw ralentir mujj taxawaay mooy dafa daan woo ces généraux de guerre tëralal leen li mu bëgg ñu def ko te suñu génnee ñun góor gi dafa mel ne xamul ne xew naa ko. boo defee suñu kër yi la guerre kilifa day tëral wax ba noppi ñu naan góor gi ah dafa yaram bi dafa tàng waaw. Ah. waaye ba ñu daan génn yoonante ndax góor gi la xaw a moo tax action militaire yi mu ngi ci def yëpp li mu doon tëralee ces généraux ñoom bu ñu demee laa ne nañ doon ñëw dëpp mais gis nga méthode yi ñu bëgg am na naa mais ci ci système de l'information la sukkandiku woon gis nga man damay faral di étudier histoire réew mais am na ay kast ay kast ngeen baal ma baat bi du teggin man du ma koy faral di wax mais réalité laay exprimer rek moo tax ma wax mais am na ay kast yu fi nekkoon ñu nga xam ne am na lan mooy doon woon seen liggéey mooy di jëfee di sosal borom kattan yëpp nit ñu baax ñi ba ñu xëy jëmaleen sëriñ bi maanaam Moussa Mbodja daa leen boole ñu bàyyi jëfandikoo yi ñu xëy sosal ko sosal ba kenn dootul am soxla ci seen présent ñu sàkkal leen pexe jóge leen jële leen. dama dégg ñu ne bref jaar ci jamono gants yu weex yooyu mu daan sol dafa am ñaar ñu dem wéer wax bi dafa gaara moo tax mu mu muy sol gants yu weex. une heure ma jóg. ñu di ko wax di ko ba ñoom ñaar ñu ko soxla ñoom di wérén dana affaire ba dafa nekk dëgg wala dëgg. léegi ci fi nga gën a gàtt mais ay tas lañu dina seen tur parce que bu tey jii stabilité réew mi ak andu bokkoo réew mi am na yu yu jaaxleetu nit ci bopp ndox. comme que may dellu ci histoire te am yu may indi. moo tax élément yu mel noonu ba tuuti mais ñoo daan daaneel bor yi ñoo daan daaneel kilifa yu mag yi te tegeetu désinformation xam nga ñu leen wuutu tey mooy réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi ñu leen wuutu man man doomu waaw réew mi koy dund ñu joxe ba toll bu dee bala nga fee xam li xew ma jàng ko ngir réseau bi kon ma xam li ma li ma li ma doon nekk jàll. am loo xam ne sunu ko sunu sunu dégg mayu sunu yéer mayu sunu condition intime mayu ko ci réew mi di ko jàngee ci li ñuy nettali. kooku bu ñu naree dellu ko droit de public te gis nga bëgg ko song rek song te amuñu courage nag wane seen bopp du ñu waxee ci seen tur ci tur ay ñu abba rek la ñuy waxee waaw ah, parce que léeg-léeg ñu génn waxal góor lu nga xam ne yow tey boo leen bëggee toog loo xam ko waxal te nag ñebe ji am na ci ñoo xam ne ils sont assez bien armés pour mën a seet la part des am na si njaboot yu nga xamante ni yu mel noonu boo dalee ci seen xel benn yoon ñaari yoon ne am na lu mën a suñu sot sotti ci seen dégg-dégg moo tax ah euh, nañ ci bàyyi xel la waxoon nañ ko teel te itam nañu seet ni ñu contrer ce système. man fan yii maa ngi am ay rencontre yu ma am ay ay ay ay yu yore wàllu éducation ci réew mi ci mel noonu rek la ñu doon insister. ki ma ko ak ki ma ko àndal. mais il faut que ñu bëri jàngal xale yi ñu arrivé à faire la ko bëgg a defar dem naa ko ba posé problème lu tax mënuñu arrivé langue wolof kàllaama wolof ak seen ñu tuddee ko ci façon bu ñëpp am ko ndax bu njëkk wolofalu caractère bi moo am au mag yëpp jëkk woon nañ ko xam nañ ni ñu koy bindee mais léegi bind bind ci wala wax ci kàllaama wolof bindee ko ci caractère arabe ci caractère latin bi lañ koy bindee. te ba léegi déggoo ci biir kuy dund naka lañ koy dundee man lii moom yi transcription bi leeral moom ñu bëgg a wax ne nañu fexe ba suñu langue nationale yi doon des langues de véhicule scientifique. te loolu naka la mën a nekk te mbir mi di leeragum ñu ne nañu fexe ba doon langue scientifique te loolu dafa am lu mu laaj. ci biir chinois yi. mais loolu lañ njëkk seen seen langue cosaan le mandara bi ñu ko gëstoo neuf mille caractères neuf mille caractères moom la seen langue la amoon mooy chinois te xam nga kooku neex la jàng mais bëri nañ bëri bi langue langue bii ñuy waxe jëlee nañ ko ci neuf mille caractères indi ko ci trois mille caractères ni nit ñi jàngalee anglais ci mathématique di ko ko jàngalee mathématique yi ci anglais di ko jàngale en chinois noonu lañ ciy jàngalee mathématique di ci jàngale yeneen ci lim doon mais noonu wala bindu naa naka lañ koy bindee mu jaar yoon sax ba léegi développé ñu ci ah moo tax suñu ci bëriwul dana xaw a doy la li ñëw ci ñaareel ci àdduna xeet <laughs> yi songante am léegi ci xeet yi soo demee Rwanda dem Côte am na lu fa dem de Darfour ci Soudan ak Sénégal bi sax am na lu fi jaar mais nag man conflit bi ak euh, ni ñu koy filee dama ci xaw a tey parce que man pour man problème politique et économique lañ. ce qui se passe en Casamance. mais Sénégal foofu la ñu ko bindoo. séeréer séeréer su ko nekkee mu am wala wala su ko ba pare yàlla def benn benn li yéeme mooy benn langue xeet ñëpp di ko waxandoo muy demee ci joolaa bi la wala nga ci ci albulaar bi nga dem ci sara xool leen kazaalika problème amu ci mais nag xoolal mooy d'abord ci jamono tubaab yi mais masuñu bàyyi ci lii doxal nga tuuti ko ñu jógee ci yeneen gox yi réew mi lañ ci erreur politique yi sabab seen njàng ci la bi ci des mooy alal ci moo économie gi la ko kattanu alal gi dundal réew mi ci ëpp dafay cofaati na li aju ci mbay ci sàmm beeg ya ca des mais alal jooju jóge ci cadre suqali nit ñi dund defuñu lu toll li alal jooju doon liggéey lu tax ñaari suuf yooyu ne daa nekk la base. et ña fa ci xëy na affaire bi jur ci ñoom góobu xol ñooñu ñoo dem kat. Senghor sax à un moment jéem na damaa ak lu mel noonu di ay cadre Casamance di leen dugal ci biir. di leen responsabilité ci ci li aju ci dootu région. te booba fekk na affaire bi système de yéen bi et pratiquement bi mu dem ak ñi ñi di ko di ko benn. du point de vue niveau yi ci ci ci adduna bi dina yokk yokk te pourtant bu ñu delloo ci alquran ñu ko mën a lay lay ndax soo wut yi ak tabax yi yàlla nee na ba ma koy def doone bi sama yërmande toll rek moo tax nee na man côté bi may sédde yàlla nekkul ci diw ku weex la diw ku ñuul la diw ku xonq la kenn sànni ci man la su ma lay sédde ci cër boobu laa lay sédde inna akramakum indallahi atqaakum ndax soo delloo ci cadre bi li li li alquran tëral euh, li yonent bi mënoon nangu ñu justifier conflit wala xeex wala reyante parce que kii dafay songal loolu du sukkandiku ci lislaam wala ko lay li ci des itam li li téere téere yi yëpp jàngale yëpp ko bokk cosaan Aadama Awa ñooñu sooy jàng ci seen seen particularité théologie Adam doonul woon ku weex doonul woon ku ñuul doonul woon ku amee dellu chinois doonul woon ku amee dellu indien les deux médecins parce que dañu wax ni bi ñu koy waajal ci suufu juróomi continent yi ba tabax meloon moom fi euh, Adam ah teewul nag am na ci waxu arab wala ci waxu alquran nañu ko interpréter xam nga mel ni dafa dëggal yi yenn théorie yi ñu gëmloo nit ñi nga xeet dañoo gëmante gënante soo demee ci jour bi euh, xaw ma yaaba yaaba ñuy Israël pour ñaamatullah allati an'amta alaykum wa anni faddaltukum ala alamin ah xam nga kooku ci biir juif yi bu ñu revendiqué pour ñu créer état d'Israël daanaka ci aaya boobu la di sukkandiku moomu ci jur coow yi am ci Palestine yëpp mais kooku man li ma dégg ñu ni moom la ko Serigne Cheikh Badou Fall daal firee rek doy na dégg ah moom dafa doon wax bi yàlla yi wax yi mu defal doomu Israël xeet ah, waaw moo tax dégg naa bu ko daan kii gënaloon na wax moom Serigne Cheikh waaw ah, moom Serigne Cheikh bu daan kii aaya bi gënaloon naa seen yi maam seen yi mu tollaloon jamono parce que boobu tawra te li li li li asamaan dig la mu jariñ jaam ci diggante ma boromam yëpp si ñoom la ko wàcce kon nan la leen ko nan la ñu ko nangu waaye privilège boobu bi bi bi bi chrétien yi ñëwee ak la defal na leen ko gannaaw chrétien yi bi ñu demee jullit yi itam yàlla defal na leen ko waaye nag benn baax moo yenn taxawaay boobu yëpp inna akramakum inda allahi atqakum waaw waaw moo yenn moo yenn nag yàlla itam Euh, euh, euh, concurrence nangoo ko lu dul ci ñaari yëpp yiw taxaw def lu baax taxaw nee na nga xëccoo leen waaw xëy na tamit affaire yi ba tey naa ko ah ah da ngay tax. nga yiw nga ngeen di xëccoo yiw ba xamal maa ku ne ma defal la ca loo taxee man waral su ngeen ñëwee ci man ba ne ma nee na maa ngi dem aljanna ma teral dara leen jox leen cocktail bu jàmm masula naa jox leen xeetu yi dégg nit ci ci ci waaw. kooku ni ko juif yi interprété et ba léegi dafa am jeexital ci seen philosophie ci système ñi ñuy wax ñoom ñoo nekk à la base de création état Palestine euh, état d'Israël su ñii ñu gisee ni que ñoom seen barab dëkkuwaay nekkul Europe mu ngi ci Palestine. bi ñu demee ba première ñu jël réewu Proche-Orient yi séddale ko ñaari puissance muy France ak Grande-Bretagne ci la Lord Balfour Lal dañu créé un foyer juif en Palestine ah. moo di coow bi ñu ñëwee installé wu booba nationalisme arabe yaa ngi commencé développé ba pare suuf gi nekkoon en di leen persécuté ñëpp jël seen bagage dem yu commencé entre arabe yi juif waaw ah, ah, waaw ba après deuxième guerre mondiale bi ñu battre Allemagne une seconde fois Nations Unies moo intervenir wax il faut que ñu créer deux états benn bu palestinien ak benn bu israélien te ñu jël Jérusalem def ko mu am statut international mais idée boobu laa def mu développé wu benn Gurion Israël comme boobu tubaab yi ñu ngi ragal nationaliste arabe yi ak jox leen ñoom la jox leen ñu ci soxla yëpp songo yu njëkk yi metti ñu ñu ñu ñu tàqale ci ci ci diggante Cisjordanie euh, Jordanie ci boppam ah eh, et gannaaw kay itam arabe yëm nañu seet ñu ñu jokkoo war songu israélien yi ëpp doole gën a yaatal seen influence ci barab gis nga la guerre de 1967 wax nañ ni trahison moo tax trahison yi gaañoo ko parce que booba Nasser tëral na plan Bonheur bi benn ci généraux yi ja jaay ko Israël laata yi jël fekk leen sur place bombardé leen ndax choc boobu ko def résister Saba comme ñi ko mën a dégg bariwul dama jàpp naa ni jàmbaar ndax song na Israël ci période bu ñu jàppoon seen stratégie militaire fii ak cinquante ans arabe yi duñu combattre te mooy ñu créé ligne amila amiral bandière ci Sinaï ñu ni fii ak cinquante ans arab yi seen armée dañoo affaiblir période pour mën a xotti ligne barrière boobu ci Sinaï. en 1973 les chars égyptiens ont franchi la ligne barrière jëm jëm Tel Aviv te dañuy def erreur erreur erreur stratégique waaye li daloon Napoléon ci ci ci ci et le stratégie du du armée égyptienne dem mooy dañu song jëm Tel Aviv te wutañu ay troupes d'élite ñu ñu sàmm fi ñu libéré américains yi ont vu l'Égypte jël seen hélicoptères yi hélicoptère troupes d'élite Israël yi ñu ñëw occupé terrain bi nga xam de euh, euh, Égypte yi libéré woon loolu moo amoon dellu teel a aviser yéen ngeen Israël yaayam ci kanam waaye ñu ci gannaaw moom moo demandé ceci def te ci boppam moo demandé ceci def gannaaw ba lan la wax xeex bi soxla doo ko pare. yow mii la ñu seet ay accords yu ñu mën a def ak Israël te booba nag arabe seen sentiment nationaliste moo ëpp doole ci ñoom mais mais Sanar moom bi muy wax loolu logique géopolitique moo nekk ci moom ah ma leen conclure comédie que da ca xaw yëpp ñu koy laajte mais encore ci mentalité boobu ñuy jàpp ne xëy na nit dana jàpp ne xeet benn am na benn wax ñu yonent bi moo ko te xam naa ni bu ma wéetee tase sama mbokk werantekat yi kii bi waa daara ji ñu jël si. loolu moo am arab yi topp ala arab yi wa lisaanu ahlul arab ahlul janna arab yi. bu ñu nee dama naa wax ko ñu ne alquran ci arab la ñu ko nosu waxu ko par hasard te nee na bu ëllëgee aljanna kàllaama ba ñuy waxee arab kooku itam indi na coow est-ce que loolu day wane ni arab dañu am benn supériorité bu nga xam ne yàlla moo leen ko jagleel wala seen village la rek am na ci ah. ah. gis nga ba ci loolu encore. indi nga yéex a jaaxal xel ci béy ci imam Busiri Muhammad سيد الكونين والثقلين والفرقين من عود ومن عصر ñu laaj lu tax Moustapha rey ajam ak ak arab lu mu mu mu est-ce que dafa respecter historicité bi ndax comme message bu ci arab la njëkk jaar ku ci charge waaye bu boobaa nooy def nooy def nooy def bilan ah bu boobaa nooy def Salman Al Farisi ah ah et pourtant si si si si combat de ceux qui ont porté le combat du li tax doo jàpp ni bu dee ci yonent bi sallallahu alayhi moom dafa indi woon alfarq bayna al arab wal ajam li tax doo ko nangu mooy ñaar yëpp mooy bilaal dóor nañ ko xeer ba ba ubbi jëw muy naaj ñu indi ci kanam yonent bi sallallahu alayhi mais bi muy bi muy dindi deret mais làmmiñam la ko arrêté di ko ji déret ci tee ji def dugub su mu paree mu jël la mu bon pomp ko di ci des dama waxoon Salman al Farisi Salman nu min na ah Salman nu min na te pourtant perse la cosaanoo mais dem na ba ñu boole ko ci ci ñu bokk ci su orma bi ñu jox ñu bokk ci wërbalu kër yonent bi bi ci des itam est-ce que bu respecté mu composé weer bi tax mu sépar comme andi na ak taw lay andi ak taxa lay est-ce que est-ce que bu logique aussi mu waaye am na ñu seen dégg des bu ko jàppee ne c'est une façon de de croire que ni arab ah, dañoo am particularité bu leen yàlla defal te defal ah, ma ma leen di ma jàngal ñu ngi guddi ci koor gi Yes, you, you, I did give you my waaye ñu joxewaat ci ñaari baat yi ñuy gëstu affaire yu conflit ethnique yi li ci ñi seen dégg xool yëpp dañu wax nekkee ko ay problème politique te nee nañ àdduna bi foo dem walaay xeet yi daan nañu jaxasoo parce que da ngay def Sénégal tey suñu joolaat séeréer gàttatul jàmm ah suñu séeréer ak wolof gàttatul jàmm suñu pulaar ak wolof gàttatul jàmm ah, damay waxtaan ak ku am sama famille ci côté sama yaay mu ne ma leen am ngeen dereetu dereetu jaago mën nga baax donc da nga ciy jàng waaw loolu mooy ci réew mi xeet yi dañu màgg dañu lëkkaloo su ci problème dañee rek ay calcul politique wala ay ci moo tax que incha dégg naa ko mu wax ci lu ma nangu mu ni mais religieux yi fexe nañ ba boole waa réew daanañ boppale leen suñu maam chérif yi nekk Casamance pratiquement seen njaboot yëpp dañ leen mujj andi ci ci ci coowal xale ñu jàng xale ñu màgg am na ci ñoo xamante ni bëgg mukk la ci ay maam bëggoon bu ko def man ko maa ngay dégg Serigne Hadj Moussa turandoo ma ko parce que franchi Babacar ku yiwee la waaw dafa franchi man comme am ngay dégg sëñ Pape Malick parce que kii gën a fonk laa ko tuddee fii sëñ ku wax ba boole njaboot boole kuréel yi boole askan yi pour problème mais dañu ci politique ñoo ci dugal seen loxo te conflit ba nga commencé bi ku ko gis xam ne am na ñu lànk ci ginnaaw yore bu nii di xëcc tax mu ni nag bu ma koy saafara dañuy seet yi ne lànk ca gannaaw la ñuy def ñu fexe ba moo àgg ci et je crois ay tegtal la ñu ciy fay ci ci détail ñaan jàmm affaire yàlla defal ñu ko mën na rajo leen jàng dul baax leen jàng dul baax leen jàng dul baax rëkkaloo na réew mi problème bu ñu teew la wala lu mu doon daa am ci problème yoo xamante ni mënoon nañ di ko saafara na ko mag ñu doon saafara mais ñoo am ñoo am bouse bi ñoo am bouse nga feebar feebar feebar ko tax a ji de mën de mën mais nag dama leen di wax ne bul bunt yi tey at yii yëpp siira la lu ñu nekk li mu li ñu wax mais intimité bi dox diggante ak yoon bi ndax am na ay abiyaat ci ci mu àddina boo déglu ma ne su ma ko jàng sama ba temps محمد سيد الكونين الثقلين والفريقين من حب ومن عجب مولاي صل وسلم من دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا لولا على كل طمع وطهد فلا أرد بدون إسلام الخم انت اللي بتقدر تقول day xam diggante taarix bi la ñuy jéem a delloo si waat yooyu benn benn man gis naa ci benn xale bu ma ko wax ci gannaaw man ma dafa gént benn mu ko doon jàmbaar waaye te jàmb bu deful affaire waaw waaye nañ ko dinañ la suñu jàngat dañ koy parce que yonent bi bu nu bu bu nu bu nu bu nu ko cukkalee ba mu wane ñu moom ci réew mi rek ma am caaw te moom moom réew mi assemblée moomu ko moom mooy ba dem ba moomu. dañ ko def dañ jàng yàlla yàlla. jàng yaa man yara te ku wax njaboot bi ku koy jàng te ku mën xizbul baax na sa jot may na ko bala nga tëdd guddi nga def lu mu wax nga tur ñaar yoon ah lu ko toppee te te ku mën génn sala nga génn ku gis ku néew la nga jox ah dafay appel de mariage 们就对我愿意的那个 details。Looking from the long, and the road to Rosar, the chair Valley Dakar, Kamaïda, Rasé Jamaï Koukus, Kamaï rapproché, du dur temps, Jamna Gwa Khalam Maï Koukomoto, du dur temps, pour que je puisse, Vado Yegan Aï Koukus. daa ban yii nag ay suñ pousse yi ma koy ay du man nii maa koy ah, ay wax na dëgg waaw ah, kon nga xam ni ku naan leeral seetal na rek la yàlla seetal seetal na ah, su ko defee parce que mais ay mécanisme rek la ñu jàpp ne moo tax conflit du am ci day wane ni Nations Unies seen résolution yeeg seen at yi li ñu bind ci résolution parce que teewul kenn daa mel ne xam suuloo te amoon ñetti baa ne ku xëy yéene jàmm doxal jàmm mu jeex parce que man damay wax benn la il faut ñun ñuy toog ci taal ku ne xam ne wax lu baax la fas wala fas ba ku ci toog rek xam ko xam nga ndax lu baax la fas wala fas loolu baax kon nag xew dañu dàq fitna dañu dàq xolu fitna dañu dàq pexe fitna te jëriñ ci ci yàlla lii di mani bi nag parce que ma dégg ci sëriñ bi mu ni daa am ku ñëw fekk ko mu toog mu góor di Ahmad Yahya ak Adi Abdourahman li leen ñun suñu papa daf ñu xiital ci kucci te suñu famille ñëpp dañu mucc mu ni ndax dama bëggoon nag ku ñu defal ñaan nga ñeen ñi ci nelaw Cheikh Xaadi Abdourahmane ne ko est-ce que mën nga di jàng suuratu Yuusuf di ko teewlu te di ko teeylu teewlu bi ci jàng bi teeylu lu ko du moom la ma koy jàng lu bare bare mais deel dee kon pepp saa bu jeexee nga jëlaat mën ko soo ko bàyyiwul daa génn ci guddi waaw mais ñun itam traité yi amee suñu liir mënatu ko doxal parce que ñi ko signé violé nañ ko violé violé violé moom moo këyit bu ñuy waaj a xotti sànni ko ci sàkkara wax peut être ah kon nag la ñuy mën a dem mooy dellu ci ci li fi la nañ ci ah dinaa ko ñaax dëgg la nag dama dégg seen Cheikh wax ko ni xaqatu nuurul muqas nuurul muqas ñooñu ko amee ñëpp nga moo leen doon lekk waaw ko gàpp ñoom ñëpp nga moo leen lekk Cheikh Alhaji Omar nga may moo ko lekk kon rek terewul dañu war a wattu seen borom digal leen ko yëpp wattu la teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu topp la ci des nag et di jël et ngeen baal kooku xëy na moo nekkoon parti bi ñu waxoon ñu bu ñu ñëwee tey rek ñu jotal ko ah di sant ñëpp nag di sant waa association bi wax dëgg yàlla ñoom ñi ñu may ñu am occasion ñëwati fii rek def quelques développement leen ci biir yi yëpp ñoom ñu doon fi wax mais il fallait que aspect yi posé problème rek ñu aborder dañuy aborder yeggale léegi itam dañuy jël ay bunt ñu gën a mën a kindi gën ñu yee suñu mbaru bopp dafa nampé fu fu fu bàyyi njëriñ tabaraka aba ci référence yi ba doon jël ci xeetu nit yi commencé di am ci réew ma dégg sëriñ Cheikh Ndate loolu moo am ci woy juróom bu tàtt ma góor gi laa Ousmane Kane la ko dégg muy wax ne am na ñoo xam ne dëkkam ñoom ci réew mi nee na dëkkam gaynde la sax ko gën a set. góor gi laa Ousmane Kane moo ko daan wax dana yàlla yokk leeram saxal ñaanam ci biir njabootam ci biir réew moo naan wax. am na ñoo xam ne dëkkam ñoo ci réew mi nee na dëkk ak gaynde ko gën a sedd ay benn fàttali benn yoon bu jeex mais nee na am na ñoo xam ku dëkk ak ñoom dañu lay puudar ba keroog ñoom di ko xam ko defee rek eh di ko fàttali suñu disponibilité ci jàppale bi ñu. pour yéene jàppale ci taxawaayam parce que comme ci biir bokk ba ci biti ah moo tax ñu ngi daal dañoo engagé mu commencé di yaatal ah parce que ku bëgg a dimbale sa kilifa bëgg yaatal héritage am yow itam da ngay bëri bëri yaatal mu koy def mu ngi am ay projet di ko éviter du ci sereinement man xam nga lu may reproché dirigeant wu Sénégal da nga ciy gis ku fàllu ci réew bëgg a réaliser téeméeri projet yu bopp mais demal France Mitterrand régné na quatorze ans ñaari projet donc la fa réaliser muy le grand musée du Louvre ak la grande bibliothèque de France mais dañuy yaatante dañuy samp ay pas mais non seulement le rôle d'un chef d'État puis le rôle de l'État tout court. c'est la continuité te adduna tukki loolu du tàkk dañuy xotti ay mbedd di di xotti ci suuf ndox yi jaar di defar ay ay ay ay parcs solaires di defar ay parcs éoliens. c'est le rôle de l'État. C'est permanent. Ailleurs, ah, eh, il veut, ñu teg la ci bopp réew man nga am na lu symbolique yoo xam ni fii mandargaal melu réew ba ca la bokk dafay ci benn wala ñaar ñaar ñaar ñaar ñaar ñaar ñaar ñaar ñaar Jacques Chirac a ngi nii def na tournant benn projet la ko réalisé mooy musée des premières nations passé na ko su ko defee loolu mooy xaw a sonal loolu réalisé jëmmi projet yu bokkul jëmmi seen Babacar radiyallahu taala bi ko amee ñu ko sollicité pour ñu defaraat théorie de la mais Maodo li mu ku ko am nañ ko def ci moom tuuta béykat yi ñu nga ñu ko ko nga yam ko ñoo xam ne ni li ñëw dégg lu ci def bu see tàmbalee ku ñuy yem di nga bàcci bàcci ni li ñuy interroger c'est lu tax demul aji ma ma ne ah tàmbu naa ko ma ko def mu ne ma naa ko dégg mu ne ba bés bu tawee maa ngi toog di ko déglu parce que bu ñu xotti ñoom xam nañ man daal di nga ci ñoom ba tax heure boo suñu bëggee defar dañu seet li symbole moom rek ñu wéyal ko li ci des ñu bàyyi ah te nag fexe ba ñu am administration bu performante aussi fexe ba ñu am administration bu performante. parce que sëriñ bi nee na ci grève bu sos am ci ko militaire a def coup d'état parce que loolu commencé di jaaxal kenn ci ñu ko wër nga ko fii coup d'état militaire du jaaxal coup d'état administratif rek moo fi mën te coup d'état militaire du jaaxal ko parce que fii mu fi tànnee rek administration ba ko tànnee te wax na dëgg xam naa ci dara am problème yooyu traité ñoom di laal seen xel yi ban la nekk. yan baal moom jëloon ñu la ko te mu yokk laa bëgg réew mi jëm kanam laa ko lu mën di jiw mu koy doxal nga mu mën jëm kanam bu ci sama loxo mën a yegg rek laa ko waaye dañu fexe ba créé une administration performante loolu pour doole suñu ko defee réew mi tabaaraka Allah dana yokk wax naa ko nan leen da ngay dem ci réew tubaab ñu tëral leen ne benn yoon donc lu soppiku Brésil seen capital bi ñu mujj defar Brasilia mais ci quatorze ans lañ ko lañ ko lañ ko lañu defar capital bi président bi décidé def ko. leen xam na ni euh, São Paulo mënatul nekk capital bu administration mais leen xam na ni bu bàyyee ñaari mandat am rëcc ko mu dem leen xam ne président yi du ko yëngal. Vous venez encore pour nous changer de capital Hein Ah si, si, bien, il y a rien, mais ça. Mais encore, il y a ça parle beaucoup. Deux ans, là, mourir, mourir, mourir, mourir, de guerre, ça va saturer. Quel bonheur vous va d'avant C'est une force capitale de l'Est. Ils ont créé une nouvelle capitale. Ils ont budgétisé 1060 milliards de dollars. Ils nous donnent 40 milliards de dollars. négocier vingt milliards de dollars ci projet bu toll noonu moom man wax dëgg mu nga ne suñu président bi mu ko demee yóbbu nañ ko la dañ ne visiter si ñoom nouvelle capitale bi wax daal dinaa wax ne Dakar sax après dix ans dañu am courage yu wut beneen capitale. waaw dañu am courage yu wut beneen capitale. ah su ko defee yooyu nag léeg-léeg rek xaw ma joxal ko rek. moom mu ngi def lu lu lu lu serein mu ngi réalisé te loolu mooy source patrimoine wax ci bari ah te wax naa ko sànq dafa laa biir saban bi sant kan ma xaw la ci ko laa biir ñen maan te moom dafa laa biir ndax ndax maam Abdoul Hamid mu kuréel ba tey daal daal na ko doomu tos kan te ci biir nit ña la ko ko waxee. ah. te boobu mooy li ñu pouvoir politique bi mu am fii ci nit ku ñuul kenn amul bu xooloo moom ñu ko doomu tos kan. donc ah kenn baal na ku mos a kuréel rek wax dara doomu tos kan. parce que bañ nañ di da leen di joxe après dana li ma wax kon da loolu du dara ci moom non kon ko loolu wax la ci ko ñëw ci biir di jël la ci biir di dala ma ko da ko may loolu du dara ci moom te ku loolu la kon loolu wax na la ko gënu ci génne génn na ci ah gis nga xaal boobu nekk ci ñoom ah juróom bu góor xam ko ci lu militaire moomoon. ah ah ay ah, sama bàjjan du kaneen balaa jóor jël karawaas yi di jóor koosee maanaam saka waaw ah, ah moom mii de laabir xam naa ci kaneen tam pour xaw a naa ku mel noonu ñuy maam bi tam ay sama amoon na laabir ko waaye bu dul woon ñu sant kanam ñëpp mën na am tere ñu sant si ñëpp mën na am tere mais moom yàlla may na ko moo xaal bu ma tere kon nag dañ ko ñaan yàlla bu taxaw ko. incha allah defal ko yéene sax may ko kattan may ko wér jéggale ci sago te bu ko yéene jàmm yàlla kattan naa la nga mën ko jàppale nga jàppale ko. kon nag góor gi yaar baa ngoo engagement baa ngoo ko xam naa ni sax prévision bi balaa ngoo di ma yónni ba su ma ñëwee ba ne ma ah waaye xam ne fa ngeen jëm itam seen loolu mu wax waaw ah, te ñun ñëpp loolu dañu ko di fàttali suma engagement ci moom dafa ko ci maanaam moom njaboot ji ah dellu sant kilifa yi fi fekk yëpp macha allah sëriñ ñëw na ma dem tabaarakallah kon bu ñëwoon ñaanal ñu jóge ci àll bi loolu yëpp yàlla defal na ko sax ah yooyu itam fekk fii ñu ñu miin maa ngi fi fekk collègue bu nga xam ni ñoo doon jàngal maanaam kon naan caa aar ba wax nga baal. ba ñun ñu ñu defalee alphabétisation wala en anam bokk nañ ni ñu koy jàngalee ci daara ji parce que moom. ci daan doole gën a nekk te bu defar amatul ab cettière de chapter bi dañuy def pour wax en chapter ba ñu xam bi soo bëggee moyen long avec un fatha nga yokk lii moyen alors que certains disent pourquoi certainement ils xam ne certains lañ annafsu tey urraqa tey inxafa tey annafsu urraqa inxafa lépp lu seet la accepté ay iman waaw waaw. ñu ngi toog chanter moom la ñu bokkoon toog. daanaka toog naa ko. damaa gaaw ma fàtte naa ko. ku ma yàlla mas a xamal la bu ma tax ma toppee ñëw waaw léegi kii barab sàngam la ma yàlla boole. jërëjëf waay. ak ak kilifa yu baax yi ci fekk yëpp ñu ñu leen wax ñoom yàlla yàlla fay leen yiw ah seen présence réew mi ci ñun kon nag yàlla na yàlla may kattan xam nga ne ñu am possibilité ba dañoo ko occasion bi de ñu doon bisu gëstu parce que koor itam xëy na jaamu la. xëy na liñ ci diggante am bokk na ci jàng alquran ay alquran ki koy jàng kay ñu ñu ñu koy ubbi ci àdduna ah, waaw mooy waral tey waxtaan nit ñi ko def ndaxte sax léeg-léeg ma tooy waa réew mi koor ñëwee c'est la saison des conférences rek lu ne su ma la dimbalee nit ñi ñaari baat mu dimbalee leen ko ah dañuy fexe rek ba ba ñu am outil bi aussi waaw ah, ñu tëralee waxtaan bi ñu koy organiser itam bu fexe ba mu am outil bi itam ah est yi indi yoon ci ci ba ñu indi li wutale ci ah, ki ki nekk ci cadre euh, tajriba suuf parce que ñu nekk ci ci ay loi rek lay jëm ki nekk ci ba suuf ci ay ay réalité te xam naa ci yàlla la kenn dafa xam doy na mu dafa xàqatoo na it da leen tudd ndox it da ngay jéem a seetlu lu toll doo ko gis parce que yow ci cadre bu loi la sa bët di teg yow ci cadre bu xabaar yi la seen biir di teg sëñ bi kon sant la sant sama sant yi yëpp soxna yi sant way jur bu jigéen bi ci biir wax dëgg yàlla waaw ah, loolu bu ko gisee sunu xol dafay tooy abaam ñetti ak jigéen leen fi dese soxna Safiya bi soxna Aliou ah soxna docteur Xëya bi ci poids ak daba ah ñoom leen fi dese parce que mu fi jiit rek suñu xol doy ñu tàmbale loo xam ne ñaanal ñu parce que ñu ñaanalee rek ñu gën a am yaakaar dana yàlla saxal leen ba am ci seen ñaar te ñu wëttali njaboot bi ba ca kanam ah ñuy itam bakkitaan yi ñu dama itam ci boobu ah ci laa évolué ah bokk taalibe yi parce que moo ëpp doole ci man ça me li ma bunti ma mën a dimbalante sama bopp yëpp ma yëkkati que du taalibe yàggul na parce que ci signal yi ngay waxoon moo tax ngay bëgg boole istifaada du baax da ngay yor ah ay da ngay ñeme waaye sa xaw nga boole ci ragal am ba ardeur et humilité ah istifaada wala bëgg a boole en deux heures ah xam nga yooyu amul waaye mooy dimbali taalibe kon nag yal na ci yàlla gën a saxal timis gi takkusaan gi jàll na yoon yi dafa xaw xat te am ñu jëm fu xaw sori waxtaan rek ñu ne ne ñu ko yamale ko ñaamatee occasion man ko dem na si ñu sama mbokk Ousmane Ndiaye nii ma ko ñaanoon te dégg naa ko te wax naa ko ba leen sang bu ma ba ni ko dañu fexe ba suñu daje daara yi ñu ba ñu dee ñëw di ko kuréel caatu kenn teeru leen seen yi seen la ñu bëgg ñu te suñu ñëwee tey ci barabu daara yi ñun dañuy bëre ba suñu barab yi fi politique bañ ko guddal. am solo ci ñëw nag ñu sant la ñaanal la yàlla parce que càkku na waaye rek ñun ñu garder suñu suñu suñu gisu daara daal te ñu ngi am am nañu ci réew mi ba ci kanam. incha allah. man c' est voyage ah dem naa Maroc la waaye xam naa ne rek yëkkati ñun ñun ñu nàmpalee ci Cheikh kii rek la kii rek la. dëgg la. ah ah. ah. la. suka yi rishuwa kwankwana ce bisa dole sadaka ya ka to kan nan ka shi an yi mugar da ni sadaka shi an yi mugar da ni sadaka lolu ko ne ta disko ata lolu da ci gam disko da lolu man san ko an na gani e ñu liggéey ci dem waa rek lii jikko yi moom ñu liggéey ko ci lii ànd bokkoo déggoo moom ñu liggéey ko ci li ci def lu bàyyi jël ko sax kon ñu mottali ko yàlla yàlla gën ñu sàmm gën ñu wattu ah mottali nu koor gi li jaamu mu nangu lu ñu ñaan mu barke dama jëlee ci sallallahu alayhi wa sallam wallaay nga gis ko ah ñoom ñoo moom jataay bi surtout Cheikh ñëw na léegi nag ah surtout ma Cheikh Omar ñëw na mooy teg jël nga ko. loolu kay li ñu doon wut daje na. bu ñu paree ñu wax leen ñoom ñu ñaanal ñu. ma jël kàddu gi delloo ko Serigne Babacar. bu paree mu joxe les dernières orientations. حسنة أعطي الحق بالحق لا يغفر في حكم ولا يحق بلا يعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العالمين am dañu wax ne monsieur Mouhamed Ndongo mu ngi ci biir Seydina Amara Diop Diop mu ngi ci biir Seydou Backe Diop Diop mu ngi ci biir kon dafay leen suñu mbokku daara yi ànd nañu ko ci liggéey yu mag yi Oustaz Aliou Nguer ay accident moom itam ñu sant ñaanal leen yàlla yal na yàlla fay yoon ñi fi daje ñëpp ba jox ak seen waaw dañu ni dañuy jox ki nga xam waaye ñun moom moo ki nga xam moom la fi bàyyi muy borom kër muy dundooy nga xam ne moom it détermination bu am solo la am ci àddam kon moom it dañuy ñaan yàlla njaboot gi fi bàyyi yàlla yàlla sàmm yàlla guddal fan yi gërëm ci ko defee kii jël kàddu ko nañu jox rek bu paree sëñ Babacar tey bu paree rek sëriñ bi ñëw incha allah ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sëriñ Alxaaji Malick Cissé Diouf ak mbooloom mbokku daara yeeg mbokki pas-pas yeeg mbokki deret yoroonu jotaay bi yëpp di ci jiital sëtu yonent bi toog sallallahu alayhi wa sallam ak surtout Cheikh général Sokotra nga xam ne jotaay bi mbokk tedd yi dañ ko ko jagleel ngir yàlla taxawaayam ci seen biir kër moo tax mu yebal Ahmed Diong mi ak Amara Diop sunu mag ak Mouhamed Abdoulaye Diong ngir yàlla ñu ñëw ak contentement ci jotaay bi li mu ciy wax rek mooy sëriñ bi bay Abdoulaye ne mbokk yi am nañu kóllëre bi ñu jàppee ba léegi bàyyi ñu benn yoon ci jëf bu jëf toll nii tuddee ko ko fu mus fii ndax kon bi ñu nekk kon la ci kon yi buntu kër sëñ Babacar Si fekkoo ak Mame Pedro Diop jàkkaarloo kër Pape Bachir Diagne bu Abdou Fati Ñaŋ sunu maam Fatimata Si benn kër Alxaaji Mamadou Issa Samb jëlloo ak kër Thierno Mountaga Tall kon koñ bi koñ la ci Ndakaaru ndax 39 45 bi ñu fekkee sa maam ju tedd ja Cheikh Sidi Aboubacar ca Tëngéej ca kër kër Imaam Amath Thiam di ndey Soxna Umu Xayri Sall mi nekkoon fii di maam ci sunu wéju bu tedd bi toog Cheikh Sidi Aboubacar ak sunu yaay bu tedd ji sunu bàjjan Adja Ndeye Marème Mële nga xam ne fii ci jotaay bi sax laa yëgee jëmm àdduna soxna Umu Xayri nii nekkoon ko am taxawaay ca ministère de l'élevage yal na yàlla yokk leeru bàmmeelam kon Abdoulaye Dieye ci turu Ahmed Diong day delluwaat di sant mbokk yi di leen gërëm ci seen taxawaay ci seen kóllëre ci seen bàyyi xel li ñu bokk ak moom nga xam ne moom doom la ci kër gi taalibe la ci kër gi ndax am na loo xam ne boo ko amee ci sa kër sëriñ di ay mbokki pas-pas amul lu rëy lu ñu ko sa loxo da nga kon Abdoulaye ci turu Ahmed Diong ak mbokkam yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di wax ne lépp mu ci def ci wala mu def ko ci alalam wala mu def xalaatam tukki rek tax teewul ci jotaay bi ndax ma nga ca Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaye bu doon sagoom ak yéeneen day bokkoon ñoom bëccëg bi bokkoon ñoom takkusaan bi kon ci turu Abdoulaye Dieye mu yebal Ahmed mii mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm Ahmed day liñ ciy dolli rek mooy dafa mos a dégg sa wéyjur bu tedd ba Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy mu ne jamono dina dem ba suñu demee ba électeur ba politicien yi ëpp yi wala sëriñ yi ëpp taalibe yi te fu jël ay njabootam jël sëriñ bi teg fële def leen ay éducateur def leen ay pro professeur mooy orienté ay étudiants ndax bu njëkkoon dañu gisoon ne bu sëriñ bi la waxtaan dañuy ñëw rek dugg ci diine waaye tey xam nañu ne poste ministériel yi directeur généraux yi responsabilité administration ak état bi yëpp nekkuñu ay responsable kase dañu nekk ay doomu daara jàng école jàng alquran ñooñu nag sooy amalanteeg ñoom da ngay am seen niveau pour mun li ngay waxaat mu nekk lu dugg ci ñoom ñu ko dégg. xëy na ba waxee loolu ba noppi xam na ba mu waxee loolu ba noppi waajal na njabootam pour kat lu mel nii pour jamono ji su ma tollee fii ñu xam lan la ñuy nit ñi kon macha allah yàlla yokk leeru bàmmeelam yal na yàlla yokk leeru ne moom fa tabarakallah Sidi Ahmed Thiaw ne du la ñaanal fu wéy du la ñaanal ndax macha allah lii wéyjur di am saw di doom noonu la doom di saw ci wéyjur macha kon nag li neex na toog nga toog toogal mbooloo ñu xam ne sa wéyjur kat jur rek bàyyi accompagné la ba macha allah lii nga am ci moom ñu ne suma ay doom yàlla ko am ci sunuy maam na jaxasoo na lool jaxasoo na lool fépp nit fu daan taxaw ci wuy gërëm doon toog doon bari na ñoo xam ne yaa ngi doon sago ju te su leen gisee tey ne te sama mag bu baax ba sama sëriñ muy alxaaj yu góoram Njaay daf ko ne woon Ahmed na nga góorgóorlu ba koo njëkk a gis ci bi nga koy njëkk a gis rek pour la première fois nga naw ko boo adduna yàgg mukk ba mu gis la ne la accam kon nag macha allah sëriñ bi yàlla yàlla la fi jàpp seen barke ba yàlla leen topp yàlla nañ topp seen i sët soppat sa baat ya bi ci tegu mooy bi ñu jógee ci gàmmu maam Ummatu Lamin Jéer radiyallahu taala dafa doon waxtaan nga indi benn thème muy jàmm mu neex lool waaye temps bi gàtt ba amuloon foo koy yëkkal mu ne lii de déwén rek laa koy déggal ne Ablaye Jéer wax fa dëgg yàlla ñoo waroon ànd ñun tukki yàlla def moom mu dem démb man ma war a dem suba fekk ji nekk yàlla mu may dimbali waxtaan bi amoon ca gàmmu ma ko ma demee jéem ne tey lañ koy yëggali mooy ma ñëw fekkee ko gis nga pédagogie ku ko xamee mënoo ko génne macha allah si bu dee pédagogie bi rafet na ndax keroog yaa ngi doon waxtaanee tey nga ñëw àggale ko. tey nga ñëw yeggale ko. kon jàngoo rek kon jàngoo rek tëdd des sa xam-xam. xam nga responsabilité la war ak sa diggante jàng yaa ngi koy continuer. ki fekkee woon gàmm ba. ñoo fekkee tey waxtaan bi. xam ne logique continuation bi nga ne. kon macha allah yal na yàlla la fal teel. Euh, waaye occasion la rek. Euh, pour wax leen ni. ngeen baal ci sëñ Ndao wax ni jàngale moo tax ñuy tudd yenn baat yi. jàngale moo tax ñuy tudd yenn baat yi. waaye moom sax ko. li ko dal moo ma dal. li ko dal moo ma dal. ndax pare bi. dafa bari yoo xam ne ci wolof. dafa bari ci jamono ji. mooy samba alaar ngeen bàyyi ci kàddu. samba alaar mooy kan. mooy ki nga xam ne da nga bàyyi farata. di def lu dul farata. Abdoulaye Dieng loolu fekk ko man employé am te naa bu ne defal ma ko fan yii passé dama dawatoon ma ñëw dellu si dugg ci bureau fekk mu toog mu ne an sa an sa certificat mu ne dama lay mise à pied ma ne ko 15 jours koo si ci weeru koor dimbali nga ko yokk samay nelaw rek te ñemewu ma xiif mu ne ko déet 15 jours yi makka laa jox ma ko ne ko dañuy ànd dem umra ci loolu neexul kon ku defar sa ba mot feneen foo dugg ñu la am nga fierté intérieure def nga sa ba pare macha allah yal na ko yàlla jàppale waaye man kër tàppe laa dëkk fii laa yaroo fii laa màggee. waxuma ñi ma àndal tey dama leen tëb. dafa am kenn ku nekk ci mbooloo mi. dafa am kenn ku nekk ci mbooloo mi. ñu bokk dëkk. xam naa kàddu yu yu may yëkkati. du sax mu xalaat. du sax mu sëy. waaye nit suy def. defal te yàlla baax. ndax yàlla mooy fay. jamono nag. jaxasoo na ba xamatuñu. kon ni ma ko waxee léegi. wareef ak dul wareef. farata ak dul farata. def te yàlla tax. ak nista waaye tey naa indi occasion ci mbooloo mi tudd benn tur boo xam ne mu ngi ci mbooloo mi man ak moom sax sépp ñu lu bari waaye samay nopp booy na ci mbaax gi muy def samay nopp booy na ci yar gi mu am samay nopp booy na ci dimbal gi muy dimbali mu tal muy bopp mbay géey mu ngi nii toog xajaajatu jéem moo ko jur xajaa def lu jéem maam Amadou Lamine jéem moo ko moom ñu tuddee ko alxaaji Thierno Mbaye Sylla di mooy jur alxaaji imam Maodo Sylla lii sax woon li nga xam moom moo taxoon jóg. lii sax taxul woon ñu jóg. waaye dama yaakaar ne moo ëpp doole sax. waaye dama yaakaar ne moo ëpp doole lépp. moo ëpp doole sax. li ma yónni. ak li nga xam ne moom laa yëkkati woon. mooy mbooloo boo fa demee. ba jógee fa. na fa bàyyi kàddu wala jëf. yoo xam ne béykat benn nit mën na la ci loolu ba baax ndax mbaax kenn du ko xeeb kon occasion la mu siite ko ci mbooloo te képp kuy ndaw nekk Gueule Tapée wala képp kuy jeune nekk Gueule Tapée rek wala képp kuy xale ne ci mbooloo mi rek nga xam ne jamono metti na te dañoo war a góorgóorlu ba kootalee nga dimbali ak jamono ji ñu fi ëpp alal ci àdduna jullit ñi la a sonn jullit yi la lu tax loolu on partage pas da ngeen dem ak sa mbokk jullit léeg-léeg mu nekk ku la jege nga nekk ci bànneel te sa xel demul moom li nga yor daf am wàll ñu bëgg a nekkee noonu rek ba tey gouvernement yi. gouvernement yi. gouvernement la rek. li Mitterrand waxoon waxoon euh, président Abdou Diouf. li Mitterrand waxoon Abdou Diouf. ba mu jàppee euh, Abdoulaye Wade. ba mu jàppee Abdoulaye Wade. mun ko gérer sa stabilité chaise. mu ne ko gérer sa stabilité chaise. moo gën ngay bàyyi fii sonal sa bopp. mooy gën ngay tiiñi di sonal sa bopp. état yi loolu moo la gën a soxal. état yi loolu moo la gën a soxal. waaye ñun sunu doomu diine yi. ñoom leneen moo leen soxal. comme Serigne bi mu ko waxee léegi. mu ne man tant que maa ngi dund lépp lu defar Sénégal maa ngi ji kon ñu ngi góorgóorlu ñu ngi ba lépp lu defar Sénégal rek jullit yi yëpp ci kàddu yi bëri na waaye il fallait ma wax loolu balaa muy tëj ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu jox teranga ñi nga xam ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu defal teranga ndax chaque jour moo wax ndax chaque jour moo wax ma ne yonent bi lan la ñu gën a ñun lan lañ yonent bi am na wuy du ñu am wuy du waaye cër la ñu gërëm yàlla la neex mu jël ko ne kii moo gën ñëpp cër boobu ba léegi képp kuy dund di doomu aadama rek nit bu jëlee teraanga jox la ko rek na nga xool cër bi yàlla sépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu la jox cër rek teral na la kon ñu leen sant di leen gërëm Ablaye moo ne woon suñu woon mu rafetlu kàddu yi mu ngi feddali ko léegi ak yëpp yàlla ko yàlla gërëm yàlla la yàlla jàppale yàlla defal leen sutura yàlla defal leen teraanga wax ji nag bari na waaye mënul woon ñàkk asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëriñ bi. nuyu na leen di leen nuyu nuyu islam di leen ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. loolu naa xam ne yàgg nañ ko fekk ñu fekk nañ ko ci ay yoon yoon te buñ ko nuyu ziara ko rek nuyu nañ mbooloo yëpp ziar nañ leen. leer jël nañu nuyoo Thierno Mouhamadou Madani teg ko ci loxoom moom mu jox ko njaboot yëpp jox ko lu ci teew ñëpp. Malick Sy radiyallahu taala bu sawlee suñu kër maam Cheikh Oumar Foutiyou mënul ñàkk a teew. Thierno Ahmad ne yéen tamit yéenay suñu sëriñ. ne Thierno Seydou Cheikh Oumar Foutiyou mooy sëriñ képp nga xam ne sëriñ yaa ngi nekk ci Dakar moom mooy sa sëriñ. mais ijaas yi ñu yor yëpp ijaas Thierno Seydou Nourou Cheikh Oumar yi nee te Thierno Seydou Nourou Cheikh Oumar ak ijaas suñu maam El Hadj Malick Sy la yor kon nag yéen yéen suñu sëriñ Thierno Ahmad la ñu leen di nuyu di leen ziara lee teew nañu fi nag si ndigal bu Thierno xalifa bi Thierno Madani Mountaga Ahmad Mountaga Cheikh Oumar Foutiyou nee moo ngi nuyu mbooloo bi yëpp di leen ziyaara ne kàddu yi du du gudd. dafa neexoon bu ñu ñëwee fii kàddu yi ñu dénkoon mooy ñu nuyul ko mbooloo bi. nee ñi xam ne tamit ci koor la ñu nekk. nee koor nag ñetti bés te fàtte nee fukk yi ñu nekk nii. nee fukk yoo xam ne istixfaar moom la si lañ moom lañ ciy def. yàlla suñu borom day jéggal ñëpp ci bàkkaat yi yàlla ñu yàlla boole si muy jéggal yàlla ñëpp yàlla ñu yàlla boole si muy jéggal léegi doon wax léegi li mu wax sëñ bi saa fi ko fekk rek day jàngale nii at bu nekk saa bu ñu fi ñëwee dinañ jël si moom dara léegi carrément man léegi si mel si nekk mooy tey dañu xaw a tardé ñëw dëkk bu pare waxtaan. waaye chaque année bu ñëwee ba fii lu mu néew néew dinañ jël suñu ay kàddu yoo xam ne kàddu yu am solo ñu mën ko jëfandikoo. carrément man léegi ba léegi ñu waxtaanee seen mbooloo fekk si moom lañ ko rottal wallaahi laa fi. carrément man léegi ñu koy nuyu di ko ziara mais way du la. fii barke di dund képp kuy taalibe soo ko dégloo di am loo waxtaan soo ko dégloo doo réer ci sa diine moo tax bu ñu ko gisee dañuy déglu lool kontaan dañuy kontaan lool seen Ahmad ne di def mooy ay kàddu di wax jërëjëf famille bi yëpp dëkkandoo yëpp di xamal ne sëriñ bi dëkkandoo bu rafet lañu dëkkandoo ak ñi ci dëkkandoo yi ne kër gi di kër suñu waarim soxna umu ñëpp xam nañu fii ay lal la bi ñu fii def bu añ juma jotee bokkoon ak kër yi ñuy wécc si xasal ko jumaat mais dëkku taalibe la waaye këru taalibe la dañu leen di ziyaara bu baax di la wàcce seen wàccuwaay mais bu ñu leen tuddee rek tudd nañu yeneen kër yi des yëpp léegi Thierno moom la ñu nuyu bu baax di leen ziar di leen ziar si koor gi di ne yàlla nañu yàlla nangul suñu koor yàlla nag leen fekkee fa ay déwéni déwén ñu fekkee fa ay déwéni déwén yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar yëpp nangul suñu koor nangu jaamu yàlla yëpp nangul suñu sarax ñu fekkee waar fa ay ay at at asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala salaamaaleykum. bu leen woy bu leen woy. moom moo nekk ci moom. ki ko jur. moo seewoon. mës naa ko wax. ni ñetti référence laa sama référence ci wàllu jaamu yàlla Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Djamil sama référence ci falsafatul Qur'an Seydi Cheikh Tidiane sama référence ci fulla ak fayda moo di ko ci Seydi Abdou gis nga external Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu al-Fatimi moom rek lañu may muy firi alquran ca Qur'aanul Aziim ku dul moom sañu lool Cheikh Tidiane Sy dafay firi alquran ci alquranul xakim Seydi Mouhamad ibn Arab al xakim yi dafay firi alquran ci quranul deseen nag ñaar karim ak mubin istamal ak bi ci des mooy jële ko ci quranul arab boobu nag boobu la mbir mi doyee waar. قرآنا عربيا واغفر فضلك فتحنا فتبارك الله يسمى على الرجل dafa am ku ñuy wax Nderi Diop te laa laa ji peereel gii la fi la yaroo fi la jànge léegi mooy président cour d'appel bu Kaolack mais àjjuma bu jot dafay jóge Kaolack ñoo jiitu si jumaa fii ci Dakar ci caar bi moom Nderi Diop ñu toog nag ñuy waxtaan en muy wax loolu ma ne dégg naa seen Cheikh di ni bala ñuy naaw bureau gën nag bulu sax ba pare dugg ci jumaa ji jiitu léegi kon ci dégg naa seen Cheikh loolu waaye philosophe la ñu ni maam la ñu ni ndax ñu ni maam la ñu ni ndax nit yàlla la ñu ni moom la ñu ni ndax aalim la wala scientifique la ñu ni moom yëpp la ne matière yi te doomu daara la ci biir caaxaan lay jàng si daaw ak si jàngal ko kon kii tey itam jógee ci banque bi dellu ca àll ba bind téere alquran dellu si waat ci un an pas-pas boobu solo ca kër sëñ si gis nga fi kenn ku dem ci aar bi bind téere alquran indi ko su ko defee tabarakallahu li mbokk mi wax léegi ci moom moom si Habib bii pur sang intellectuel waaw parce que dafa am ñu dépassé parce que yoo xam ne boo ko dépassé rek ci suñ kër mel nii rek dem benn activité la ak bu xëyee mi ngi ci bu nekkoon ci toolam mi ngi ci lecture ak ay def recherche jeex na amul leneen waaye kujje kujje dañ ko doon waxee kujje moo baaxul lu ñu tardé rek kujje ci la boobu waaw kii ngi ut am na jógal uti nga am waaye lu fi toog di kujje moom retard lay jur su ko defee moom tamit ñu ñaaral ko yàlla am na mbokk yu fi ñëw suñu mbokk Malick Diallo mu ngi fi ànd ak Soxna suñu mbokk suñuy jabar Soxna Anta Niang na fi délégation bu tàggu suñu mbokk Soxna dem fële ca mbokk yabal na fi moom tamit délégation waaye keneen Hadji Mouhamadou Issa Samb ñëpp a ngi fi bi ñëpp ñëw nañu kenn desul tabaarakallahu soxna Ndeye Mary itam bi nga xam ne moom tabaarakallaahu soppe ci sëriñ bi ñu ngi fi bàyyiwuñu kenn ci biir xale yi seen soxna xale ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal yàlla ñuy jóge Kaolack ñëw nañu jóge ci fédération yeeg rassemblement bi yal na yàlla fay leen seen tànk yi ñu dox ba ñëw fii yal na ko yàlla def ëllëg tànk yokkati ci àddina def ko tànk dugg dox dugg àddina ëllëg ci kanamu borom dana leen ko yàlla defal bu defee rek tabarakallahu macha allahu waa kër Thierno yi wax léegi ñoom ñoo moom conférence bu ñu yéexee ñëw ñu toogal ba mu ñuy ñëw ñëw moom conférence su ko defee itam dañu bokk màgget waat fi teew waaye dana am na ngaan ci taaw ba nga ne que ci papa nga ne ay doomam ñëw nañu nga fekk itam conférence waa AFTEC yëpp commencé ko ci président bi muy Lamine Diop ak président bi muy soxna Sophie Kalane ñu leen di gërëm leen sant di leen ñaanal yàlla taxaw bu ñu taxaw seen maam gi ñoom ñoo jëkk taxaw gis Kaolack ne am lu fay sooxe boo tax ñu formé lii ci Dakar li ñu ci li ñu am ci conférence yëpp ci gàmmu gi la jëm fa lañ koy yóbbu luñ fa war a def ñu def ko daaw ci gàmmu gi dañu ñëw jënd ñetti armoire climatiseur te ku ci sax yàlla jëm ba tamit waaw bu rek ah ñun nag liñ ciy def moo ñu war dañuy góorgóorlu rek ndax ku ñu jox responsabilité nga jéem a góorgóorlu waaw dañuy góorgóorlu rek tabarakallahu masha allahu ah ngeen dolli ñaan rek yàlla moccaleen ñu li ci des ci barke weeru koor wu tedd li wax rek ci jàmm jafe na ki dana ko jàmm waaye jàmm fenn ko lay mbasante ilay la yëddi li tax li tax tule ni yëddaka li tax tule ni maanaa bi waasatin ilayi yëddi jaatu la inni axaafu waaha rabbal alamin jàmm la doon wut ba ñu fas koray ko ci waaye yàlla gisee ku doy waar fa baasa allahu gulaama yabxatu fi l ard li yuriyahu képpul waa yi sawaate at xamul lu muy def koor bi yàlla baaxal la ko booleel bu ñëw gas bu mu xóot jawaram bu dee wala doomam mu dugal ko ci jël suuf muur ko mu soog a xam ni koor bi noonu lañ ko rey nga nit ko reyuma nit mu ne ko rey nga mu ne ko reyuma nit mu ne ko joxee yàlla na garab gi suuf avalé na ko ñu seet suuf seet na fi suuf mu garab ne yàlla jox ordre suuf ne ko tey jii ngay gëjë avalé deret ji tuur ci sa ko ba tax bu tabaski jote boo ñëwee boo rendee saxaar ba ko fa waaye fukki weer ak na tonne ne war ko boo ñëwee fa ngay fekk deret defal loolu yàlla expérience jàngal nit ñi rek la ciy jóg jàngal nit ñi rek la ciy jóg buñ ko ut jàmm ba sa bakkan fekk la ci tabaarakallaahu eh, te yàlla def waxtu wi di rek ñun allahu ñu teewaat fi kenn bañ a manqué waykat yi ñu leen di gërëm di leen sant di leen sàmm tabaarakallaahu macha allah. taxawaay bi teewaay bi sëñ Cheikh Diakhaté ñi nga xam ne moom lañ tudde sëñ Cheikh Tidiane si dañuy nekk ci Màkka mu dem jóge ci jàkka yi fekk ma ci sama hôtel mu ne ma am na la xew tey dama ne ko la xew mu ne ma sujjoon nekk ci <laughs> mais gaa bëri na <laughs> si si tànk jigéen ci màggal da ngay da ngay si jot rek ba pare ñu dem seen waaye daal kenn mës ko gis rek tabarakallah. dafa war a jàll ñu mu ñu mu toléré te boo demee ci jàkk yonent bi doo ko gis. li gën a doy waar loolu <laughs> la nga ñëw ci jàkk yonent bi doo ko gis mukk mais boo demee ci Kaaba bu fekk fu mu fees def def def def def def gànnaaw bi loolu la rek ah allahu allahu alam yàlla defal yëpp rek. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen tokkeel di sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla Muhammad. saabu di fóot boppam. wala fii dañuy wax ni bu dul woon ak nekk lii du neex waay def. fii ci rue 14. góor gu baax bu teg gi tax. ñu xam maam Abdou Hamid Kane ñun ndaw muy maam Ousmane Kane radiyallahu taala moom la ñu xam góor gu baax jat koo xamante ni ku yaatal yàlla dogal mu nekk fii ci biir kër gi nekk sunu waajur bu tedd ba soxna Ummul Kalsum Seyda Aboubacar yàlla am lu mu dogaloon ci moom mu doon nit ku baax loo xam ni si yox bi benn mbindam rek doy na teraanga dafa am bés bariwaan na bu nekkee fii sama bàjjan daf may woo ni góor gi nee na du reer te ñëwul man sagar bi daan loolu yàlla mu am itte ni ma demal nga wutal ma ca gaar bu jeex sa place na nga ko gaayee nag te buntu xalaat yi góor wut cette place bi gaare ko fa booba dafa fekk mu ñëw Ndakaaru am rendez-vous ak cardiologue docteur Kouaté docteur ba ni doo génn Ndakaaru fii ak ñetti weer mu sol génn dugg ca oto ba tegu ca yoonu koor ca tàggoowu ñu julli timis soxna mu dégg ko ñu julli gee soxna si dégg ko ni ma waaw ana sa góor bi ko dem koor mu ne ma da ngeen may kompaloo lu xaw waaw ah, mu def fa juróom-ñaari fan dellu si waat pour honorer di docteur bi wax ni ma ma Birane ma ne ko laa béy mu ne ma yaakaar dafa fort jëlal bigak fëy ma jël bigak fëy mu ne ma bi may jógee fii di dem sama kër yëpp ñetti fan moo ci def ci dépense te yaakaaruma ko gannaaw yàlla du ñu te xool mu ne ma bi ma ñëwee jox naa Serigne Babacar ñuy dépense ci kër gi ñetti weer bàyyi naa ko la dépense bi ñetti weer ñun googu mooy Alaaji Ousmane Kane radiyallahu taala mu nekkoon fii ak gor yu baax muy këru sang Serigne Babacar radiyallahu taala mu bàyyi am ay doomam yu jigéen tànnal leen ay nit ñu tedd soxna Fatou Sy mu jox ko góor gi Cheikh Ndiaye Madi ba yàlla dogal li mu dogal soxna mu Kër Zoom mu jox ko maam Ousmane Ka sunu bàjjen Sophie mii mu jox ko Baye Baye Baye Sarr Dabar Sëriñ Ba sunu mu jox ko El Hadj Malick Sall bu daan duggee ci gouvernement sunu bàjjen Khady mu jox ko góor gu tedd gu yaru boobu gu yiw kii nga xamante ni fii la daan xëyee di ñëw ci sa wajur bu tedd ba mu nekk léppam def ko nawle nag dëppee ko Abdourahmane moom sa frère. Simaari ñu ngi leen sant di la gërëm koo amul tey ñu koy woowe ñi lay dégg ngay waxtaanee sur le droit intellectuel ñu am sikki sàkka naan ndax doomu Serigne Cheikh na ko def sa taxawaay ndax kat pompier dëkkandoo jàmm ci gën ñun ñii day dëkk fii. di njabootu alaaji Mamadou Issa Samb yàlla dogal ñu ne ci loxo soxna suñu kër zoom yow na lu yàlla boole muy noor muy nawet doo ñu gàntal bu sa bopp dee metti di nga ñëw boo feebaree di nga ñëw ci loxo xilaafa gii nga xamante sa loxo muy maam yàlla na nga ci yàlla jàppale yàlla yàlla yokk sa sutura sëriñ bi def ñaan ñaanal ñëpp incha allah sëb yaa ngeen ñëw ak ñoom la ñu jóg. mooy le 23 ci kaw la dañoo am ay rak ñu tuddee seen bopp soppe maam damal damal damal damal yóbbu seen bopp kanam ci le 23. bu defee rek mu jéggi si rek dox li nga xam ne souvent Cheikh génn na. li ngeen taxawee baax na. ah li ñuy jox rek nijaayam li ñuy jox seen nijaay seen seen xarit ndey mooy maraati. ñu may ko jox addiya ñu suunaru koor soxna ki ñëw nii Touré la sant doomu Cheikh Tidiane Touré la bu kaw la kii doomu maam am la ñëw ñoo jollo fële ca kaw la kii moom mooy président doomu Abdourahmane Camara ñaan yàlla liñ fi wax yëpp yàlla defal ñu ko nangul ñu koor yi moo ñu nawaatu bi nangul ñu alquran bi yàlla na ñu fi daj ak daje bu gàtt bi dana am seen di mën a détaillé son sujet yàlla ñu yàlla defal ñu ko bismillah bismillah rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للخلق والخاتم سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم صلاة تؤملنا بها من جميع روعاتك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 حتى بنات كفاه بالعالم